صلوات الله وسلامه على عبده المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الوفاء بوكي جولي دي ني سيتان تي دينو ديغلو اك فوغين مانا نيك تي ريو يو فاسانتيكو غيناو بو نو سانتي بوروم بي سبحانه وتعالى جولي تي ندوام لا ابي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي ديلو دي ياسال سونو جايانتي تي مولانا شيخ احمد بامبا رضي الله تعالى عنه وارضاه nu ngi fab sunu nuyo ak sunu ziar di jotali Cheikh mohammedul muntaha khalif general de Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lol te wer banal naal yim nalal Cheikh Ahmadou Bamba mu eggale ko ak sagom te andu ko ak nun xam ngeen ne sen atou murit ci jotaay yi nuy amal ngir di ko fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar di magaluk Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu siwaat na nanu tey fii ci kër Cheikh du Samad Mbacke moom Serigne Sohaybou ngir wéy ak yéen jataay yooyu nu ngi sant yàlla nag bu baax di julli ci yonente bi di sant Cheikh du Bamba di sant Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo waral jataay bii dajale fi nag ay ndaanaan yoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom rek doyoon na mu waxtaane plateau bi waaye moom cig yaatalam ak bëgg a wan ne ñiy liggéeyal Serigne Touba ci waar wi ñu bëggante lañu ñu soppante lañu te mën nañoo bokk benn plateau moo waral sëñ bi doxalee doxin wu mel noonu ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér euh, bu dee ci sama ndeyjoor maa ngi feggoo ak Serigne Bousra Samb mi ñëpp xam ci waxtaani Cheikh Ahmadou Bamba te man ko lool ci biir réew mi ak ci bitim réew doonatul kenn ku ñuy présenté ci sama càmmoñ maa ngi feggoog alxaaji Gana mesere Maxtaar mi ngeen xam ci waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba te jekko ko lol fa tabarakallahu di don ku engagé ku yoon wi ñor ku ñepp xam batay ci sama càmmooñ maa ngi ak alhaji abdullahi Diop Bisri mom dama koy wax ne ko yow pàggu fi Serigne Touba ga di jambar di ko am éloquence di ko mana a di ko mana a Cheikh Ahmadou Bamba kon nan yoyu la Serigne bi dajale tay ci eutub murit ngir ñu waxtaane nag ay thèmes yu fasantikoo incha allahu bu ñu duggee ci waxtaan wi kenn ku nekk ci ñun ci biir réew mi ak ci bitim réew dinu topp di ngeen xam fi nu jëm incha allah alhaji Busra maa ngi lay nuyu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi إخواني أخواتي أصحاب المعالي أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي بوكي تاريبي بوكي تلسبت تكتريب نغلين دي تدلين سيارة دلين روكيل تيويرو مقوي تيويرو شيخ الخديم دلين سيارة ينيب دي صاحب الفضلة الشيخ محمد المنتقى ميغا خمني mom la seigne Touba denk yonam wi di nuyu bokkam yëpp ak rakam yëpp ak njabotam gépp ak murid sadiq yëpp seigne Ibrahima di la fay ab nuyo di nuyu sama jarbaat yi ma bokkal plateau bi ñuy ño xamni ni lol ngir dajja ak ñom ndax li dañ koy sante yalla bu baax baax ndax bu neexut won yalla jotaay bi du am di leen ñaanal bu baax di ñaan ci barke xaadim rasool waxtaan wi nu bëgg a sumb jëme ko ci sëriñ tubaa ngir waajale ko bisam bi yàlla nañ ci jariñu jariñe ci barke xaadim rasool jërëjëf alhaji Busra ñu ngi lay sant yow tim bu baax di la gërëm ci nuyoo bu tedd bu màgg boobu nga nuyoo alhaji Gànne Mesere Maxtaar maa ngi lay nuyu auzu billahi min ashaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شيخ إبراهيم يونغلي دلون نيو دي عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دين نوي مبولم نيغا خامن نيو ني سيطان فو نيو مانا نيك سي بير ادونا بي نونغلي دي نوي دي زيارة دي نيانال الشيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو فيتا ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko ànd ko ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp waaye di beral ab nuyoo Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne tey moom la ñu nekk ci ab ëttam te mu taxawal lu am solo lii ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom kàttanal ko te dëgëral ko bu baax te eggale ci yéeneem alhamdulilah di nuyu sunu kilifa gii nu bokkal jataay bi di sëriñ Serigne Bassirou Samb di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi. te wéral ko lool ndax kilifa gu yaatu la gu tabe ci darajaam goo xam ne waxtu wu nekk daf nuy soññ ñun ñëpp dinu gën a teg ci yoon wi dinu gën a laaye biiree di gën a dalal suñu xel kon yàlla na yàlla gën laa yàggal nuyu sëñ Abdoulahi Diop Bichri yi nga xam ne moom la ñu feggool moom it mu nekk suñu mag nekk ku baax ak sëñ Ibrahima Fallam bi nga xam ne moo yor tey kàddu gi moom it nekk suñu kilifa ñu di ko ziyaara bu baax ak mbooleem mbokk yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf alxaaji Gana Messere Maxtaar ci kàddu yu rafet yoyu noo ngi lay sant di la gërëm kon nonu lañuy joxe kàddu gi rek alxaaji Abdoulahi Diop bisri bismillah auzu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin il makin وعلى آله وصحابته وخير خديمه وأمته أجمعين أيها الإخوة والأخوات أيها, المست... أيها المساهدون الكرام نرحب بكم ونسلم عليكم بتحية أهل الجنة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي تديني توبيب نجلين دي نيو دي لين زيارة دي لين بالو حق دي لين بالو di jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu boroom julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam santati seexul xaddim di jaaraamaal maam Cheikh Ibrahima Fall buntu yoon wi di ñaanal sëriñ Muntaqa Bachir mi tooge jataayu seexul xaddim yàlla na yàlla dolli ko wér te dolli ko kàttan mu yàgg lool ci sunu kanam di ko ñaanal mbooleem njabootu seexul xaddim bi di nuyu ak a ziyaara sëriñ Abdou Samad Mbacke Souaibou mi taxawal jataay bu am solo bii lépp jëm ci luy dundal xam-xam ak lu ñuy gën a soññi ci wane liggéeyu Cheikhul Khadim bi yàlla na yàlla sàmm ko te fay ko nu ngi bég lool ci jataay bi di ziyaare sunu kilifa di kenn ci nun di xutba bu mag ci ñun ñuy waxtaane sëriñ Touba yépp di royukaay boo xam ni moo xàll yoon bi ba tey ñun ñëpp ñu ñeme ko te xatalu ci kenn te bari na koy jariñoo ci moom tay sutur ag fépp ci waxtan muy alaaji Busra sam, yalla yalla sam ko lol yagal ko sunu kanam ba ca kanam di beral nuyo alaaji gan mesre Mokhtar momit di jambar ci yoon wi di ku beug serigne Touba jeex ci tak nga xamni ni lay waxe ci serigne bi kep ku beug serigne bi sa bu waxe sa xol sedd ci mom nga ñaanal ko yalla gëna yag ci barke serigne Touba di beral nuyo serigne Lamp Fall Ibrahima mi nga xamni ni dañ ko jël ngir modéré jotaay bi waye li ni def dàqunu ko ndax xam-xamam bu bari ak geejjom gu bari ci sëriñ bi waye jikko mi rafet yalla yalla sam ko ta fay ko ñu ngi nuyu kilifa yeen fi fekk yeb di sant ñep di balu ñep haq di balu ñep di am bekte lol sëñ Ibrahima Fall di la delo kaddu gi inshallah ba ci kanam. jërëjëf Alhaji Abdullahi Diop Bisri bokki yi ñuy setan ci rew mi ak bitim rew ngi bëgg waxtani genn goor borom karbati nawet yi waral marakisu nori. Bayu basak bara, magi cernook masamba serigne Cheikh Ibrahima Fall ki def ñett yu jafe dem ci geej gi ñibisi dem gannar ñibisi dem jolof ñibisi ramlo doomi soxna yi soppi ceddu yi ay serigne koku la ñuy bëgg a nga xamne lu baax lu nekk jël na la ci gën lepp lu ñalu la serigne touba def nako wax nako bind nako meser nee na ngor na yalla ngor yonenti bi ngor alquran serigne bobu nga xamne kenn du mom te du kenn mom lañ bëgg waxtani inshallah rabbi kon sunu laaj bu ñëk ñu ngi ñëw ci alxaaji Gana Messere Maxtaar ku ne xamne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu dafa amon pas-pas am ak dogu ci nekkug wayjuram ci mbacke kadior nga xamne ku nekk xamne ne daari serigne Mor Anta université la won ci jooja jamono ndax mom ay étudiant la yoron ndax moom professeur la waaye amutoon ay élèves fu ne ci réew mi mboolem turux yi ak doomi soxna yi daan fa daan takk di fa jànge ji sëriñ bi nekk ak waajuram woowu diir bu gàtt wane fa ak njàmbaar bind ay téere ci jamonoom ba ay waajuram di ko jàngale kon sëñ Gana da ñuy tàmbaleel Mbàkke Kajoor wàcc ak ñun ñëw Mbàkke Bawal jóge fa ñëw Daaru Salaam jóge fa ñëw Tuubaa jóge fa dem baar yi ba ni bi waje natou bi ngir dem ci geejgi ci tënk bu gaaw foofi rombu nga bëbëstal ko ngir xam nañ xajut ci guddii te xam nañ da nan la jere euh, jërëjëf Cheikh Ibrahim jërëjëf bokk yi setan euh muy tom bu am solo ni fatli ak nafarat lenn ci jaar-jaari serigne bi mi nga xamne waxtane ko ak fàttaliku ko mooy yërmande yàlla mooy xéewalam it euh, étape bobu nu wara a tàmbalee it di Mbàkke kadior dafa bok ci béréb bi nga xam way juróom serigne Mbàkke Mor Anta Sali moo ko ku ne xamna ne way juróom di serigne Mbàkke mor dafa nekkone aalim nekk aabid waaye nekk it xutbu di xaws nekkoon koo xam ne boroom xam-xam yi seere nañ ne géeju xam-xam la goo xam ne daf daan ball wat gune way mar yi ñëw di ca naan si loolu nag euh, kenn ci boroom xam-xam yi bi muy tagg Sëriñ Tuuba da ko ca indiwaale moo tax ma wax loolu Euh, muy ku wax sëriñ ma Kan Dingiraay dañuy wax ne bokk na ci ñu jëkk a tagg sëriñ bi bi muy tagg sëñ bi booba sëñ bi ci fukki at ak nangam lay topp toll boobu mu ngi ànd ak way juróom sëriñ Mbàkke moo ranta sëriñ waaye ba mu ko gisee rek dane ko kii daal moom mboolem siècle yi war a ñëw yépp no si jaam ñépp mi ngi ci ñaari téngam daal kooku nag mooy Ahmadou bàmba mi nga xam ne baayam mooy géej goo xam ne day baawaan ñëpp a naan defe naa ma nga waxoon ne innal xuruuna bila thunya azimmatihim fi raxatayka li yanqaadu ma an qaadu hada la ahmada bamba kaana walidahu bahrul ulumi namiril maai mawruda kon loolu tegtale na baayam melo woowu maam ba mu jógee moom Sëriñ Mbakke Moor Saalum ca woote boobee Maba Jaxu woote woon te mabba shahite mu andak la dior ngir atteel ko waye xam nga ne dafa bokon ci lim sartante ak la dior moy lu bokk ak mom benn pey lu bokk ak mom benn dekk lola waral bañ fa joge mu ñew keur Amadou yalla mom mu dem sañ ci patar nga xam ne bu talata joté mu ñew diko attesil li jëm ci mbirum diiné yek togn yek ya ci aju bés ya ca dellu desaat nag mu delluwaat ca daaraam di jàngale ak di yare bi Lat Joor jógee foofa nag ñëw sugeer moom it mu sañ ci Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor nag diir bu gàtt la fa def ndax ñaari at rek lay war a toll suñ boroom dogal mu wàcc ab liggéey waaye diir ba mu fa nekk yépp it sëriñ bi moom dafay taxaw ci wetam ni ko Cheikh ba Bachir Mbacké wax ne diiru fanweeri at li Serigne nekk ci ron woy juróom yépp du taxaw du taxawal dara lu mooy ne ci ron way juróom rek waxtu wu ne muy sàkku di bind ay kaamil di ko wecciku léegi-léegi la ca bàyyikoo mu di ko def ci yitteem wala mu di ko def ci yitteey sëñ Mbacké moo na tësali ba teel a dajale ngërëmam yi yépp ba ba ñu demee ba ca dëkk boobee mu sanc fa nag di euh, mbakke kajoor ba ñu demee ci atum sësin di 1300 trois cent ci gàddaayu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci weeru muharram way juróom génn aduna sëñ mbakke mor fekk booba daara ji fes na del nit ñi bàyyi koo nañ ci fànn gu nekk sëñ bi ci way am na ñooñ booba ñu ngi jaayanteeg bi te way juróom ngi fi bari na ci mag ñi ñoo xam ne ba ñu ñëwee ca daara ja di jàng si bu ñu gisee sëñ beeg ni mu mel rek dañoo jël seen bopp ko ko jox loola moo tax bi way juróom génnee àdduna mu ñu indi ko deqale denc ko ba ñu noppee ca denc ba it dafa delluwaat Mbàkke Kajoor waaye diggante boobu it sëñ bi wane na fi wax na fi jëmuwaayam leeral ko àdduna ndax xam nga ne sëñ Ahmadou Ndoumé Mar Syll mi nga xam ne moo doon taxawee sëriñ Mbakke Morante Sali di ko jullee ba ñu dencee ba noppi nag ba ñu dajalewaat mbooloo ma yépp dafa laaj sëñ bi ne ana Ahmadou Bamba sëriñ bi wuyu mu ne bisimilah jegesil sëñ bi ñëw ba sës ci mbooloo taxaw ngir ay tegginam bañ a xuus ci biir mbooloo mu ne ko noo ngi lay jaal sa way jur wi waaye di sàkku ci yow nag nu dem ci buur bi fi nekk jaal ko sa way jur wi ndax dendandoom la woon léppam la boo ko defee sax mu mën laa teg fa mu ko tegoon nga féete ko fam fa ko sa way jur féete woon bu ko defee mu féete la fa nga xam ne it fa féete woon sa way jur daan ko te loolu nag gisuma ci lu mooy aw yiw sëñ bi ne ko noo ngi leen di sant ndax mbirum jaal bi moom sunna la waaye nag dox jëm ci benn buur jomm naa ko malaaka yi di ko seele moom foofee nag ba sëñ bi waxee loolu te toll ci fanweeri at mbooloo ma dafa xajale ko ci ñaari kuréel ñenn ñi dañ ne kii moom yàgg nañ leen wax ne xel mi gàtt maanaam dafa dafa dafa dafa dafa wéradi ndax bokkul ak nit ñi ay gisit lu jiitu loolu. waaw bi muy ñëw. dafa doxi Mbàkke Kajoor dox dellu. waaw nangu ta war ci dara. waaw xam ne ñaari kuréel la kuréel bii day wane ne kii xel mi dafa gàtt. sa fii la ñii ñoom it jàpp ne kat pouvoir yu rëy yii ak ndombal tànk lu toll nii kuñ ko proposé defe naa waruloo am genn bëgg lu may daw jëm ci loola waaye sekk sëñ bi moom. bokkul ak fofé aw jëmin ñu ci nekk it kurel bu ci nekk it sëñ bi tontu na la bopam euh bi ci jëkk bañ né ko demal ci wuri lo fay jëlé ay cadeau ay payor yo xam dana la soutenir dana bax ci yow daf ko waxal bopam qalu li yarkan li abwa bi salatin tahuz jawaiz tughni kullama xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bi walastu raadiya xayra al almi wa diin ñi nga naan ma jàngal jëm ci wuur تهوج جوائز دعهم أي بيار يوخم نتوخني كل ما حيني وقت وين دنا لو وامرال شتو نيرل منلين منك منك منلين فقلت منلين حسبي ربي يالا دوينا ما لا يلا دنا لو دوكو دويلو وايه من وقت فايت به تدويلو ناكو ينوا بلا يالا دويلو غا دويلو كنا كن فوجم من ولا استراضي خير العلم وجي أغلمو يق يق كن منو ما جملو فن من جن بغلام مي خم خم الدين لالو نك lam ca tontuwaate cay gën a yéeme mooy wala su arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini foofu la tawxid yem man day du ma yaakaar baa may ragal ku dul yàlla ngir bu ma ñàkkee yàlla may woomalal bu ma nekkee ci njàqare moo may muccal bu ma yitte moo ma koy fajal te yéen sax lii ngeen may proposé ku ne naan ma jëmal ci buuri adduna yi waaye bëgg poñaxiit bëgg dara nu may yóbbee ci ma dem ci ëtti ña nga xam ne seen ëtti ëtti seytaan la fa kayfa yabaaduni xubal xutaami ila jiwaari man duuruhum rawlu shayatin ñu jàppee na loolu ayib la ci moom ba tey it mu tontu in kaana aybiya zuhdun fi xutaamihimu fa daaka aybun nafisun laysa yuxsini bu dee wan gi ma leen woon ginnaaw dëddu leen de mooy sama ayib ah loolu ayib ju gànjare la ayib ju foor la jàqaloowuma tiilloowuma ñàkk gi àdduna de awma ci benn gàcc ñeena xel mu gàtt mi la mu tontu leen qaalu safihum li kaw lam axaf axada wa ma rajawtu siwa arrahmani di qadar qaalu safihum li tafwidi ila maliki amri anil il kawni fi safin fi kadar nee nan samam xel daa gàtt ndax ñàkk gee yaakaar war a ragal ku dul yàlla wala jublu keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala yàlla rek laa jublu yàlla rek laa am yitte ci yàlla laa soxla nan laay jëlee sama mbir nag man Ahmadou Bamba fekk ñi nga xam ne ñi miskin lotte ci seeni mbir lañ lotte ci seeni mbir may jël sa mbir di leen wóor di leen ko wekk ane u ufawidu ahwali liman ajazu an xaali anfusihim ajiz al masakini in kuntu da xasanin aw kuntu da watarin daatu zal ayna qabla ra'i wa shini bu ma jàqee baa ma tiit daal borom aras laay woote mooy borom bi subhanahu wa taala te mooy al muayni bi nga xam ne mooy aji dimbalaa kon bi nga xam ne lu ko soob mu am lu mu bëgg mu am mu am lu mu bëggul du am kenn mënu ko amal loolu bi mu amee Cheikh Ibrahim sëñ bi toogaat na ab diir nekk ca daara ja di lijjanti waaye jógewaat na fa nag defaat tuuram boobu nga xam ne dem na fi gànnaar dem fi ci bërëb yu baree baree baree bari seet fi ay nit ñu baree bari yoonu gànnaar wu jëkk woowee loole bokk na ci ba mu dellu siwaatee nag nga xam ne lu tollook at ak ay weer ginnaaw wéyum jay juróom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali la jot ndigal lu bayiko ci yonnati bi alayhi salatu wasalaam jóge ci borom mom ñëw ci mom ci mu tuxo ci halu tadris nak ñëw ci halu tarqiya lolou mo wara rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faq faqat yeenaka allah mujaddidan li hadha al jil lutax bu lu yam ci jangalem kesse kat yow yàlla daf la tan def la ngay mujaddid bi nga xamne ya wara yeesal diina ji kon nak wa rabbi kullu wahidin bima yaliqu bi كان كون لا يال تي موم تي يار تربيه نانكو ليف غيسغا فاصون يي تربيه يي ووتو يي سيغن بي دون دي تومبال ني دي روتلو ني دي تخانلو ني لول ليكو اندي موي كين كون لا يال تي موم تي تربيه نانكو كو ديفال دا كون خامنا لان موي ديماسيون خامنا ديغريم خامنا روحام خامنا لان موي طبيعام با من لا سيت يون موم لاي سوم با نيو ديمي با تي ويرو كور وا تي اساس 1301 ولا دو سولي 1883 ولا 82 مو خي ووتو Cheikh Mahmoud Lamine Diop Adaka di nee dafa dajale mbooleem mag ñépp fere yi te jàng andi leen mu ne leen nag képp koo xam ne jàng rek moo nekk yitteem mën naa ñëw dem nag seeti keneen ku ko jàngal wéyal am njàngam topp aliwaam waaye wa man araada ma araad na fal yasir bi sayri na koo xam ne nag lii ma bëgg la bëgg ah na ñëw nag doxe niñ doxee waaye na jël mbiram bàyyeenu sëñ Lamine Diop Dagana nee na bi du sëñ bi waxe loolu da ca bolé ko dogu dafa dem wax ko rek dem fatu neena mbolo ma fa dess nak di waxtan ñi di tan ak dess tok fi mom ñi di tan dem ñi di tan téye seeni xarit ngir bañu dem mhm. neena ba mujju nak fa dahaba al jull wa baqiya al xull mhm. nee na la upp dem nak la néew dess waye taxul sëñ bi neena gess ci ca ndax ajjumaam joojee ba mu ko wootee ñetti nit rek a jëkk a jaayante Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sall Ndiagne Cheikh Massamba Diop Sall hmm. noonu mag ñi toftaloo di jaayante ñëw kenn ku ne ala sama wa ñëw jox ko sa bopp ci ne ko loo nekk ca laa nekk loo wax ca laa ca laa mu tàmbali taxawal nag yoonu murit ci ndigal lu bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw ci moom ba muy wootee it mu wax ne wóotewul moom lu mooy yàlla ndax njàccaar wala silmaxa bu bëggee dox ci aw yoon fala budda mu am nag njàccaar ju koy wom jox ko tuumam bi borom bi subhaanahu wa taala di wax ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabili ñenn ca tekkikat ya dañuy wax ne bañ bëggee dàq dañuy wax ne euh, na ngeen xam ne wasila googu nag amalu salihat waaye bañ ne wattabi sabila man anaba ilayya <laughs> mooy ñu ne bërit jëm si man topp ma na ngeen ma wut xaw nañoo am tuuti nangam nangam ndax ma leen su dee egg ci yàlla te amoo wasila moo tax mu woote ci yàlla moo tax Cheikh Ibrahima ma Almachari wax ne fa ma min muridin yabtaxi l wasla duunahu siwa siaman ma in lahu da raqaidu nee na amul ku bëgg egg ci yàlla wan ginnaaw sëñ Tuubaa lu dul gumba goomul njàccaar di ko wambat waaye sëñ bi bi muy woote néewut ne ñëw leen topp ma waxul ne ñëw leen jox ma dane ku bëgg li ma bëgg jëman dem yàlla laa leen di joxañ daa ila jallafal mujibi lahu ridan wa naajin wa muhtadin ilallaahi hmm. xanaa kay ñoom ña ko toppoon bàyyi seen xam-xam bàyyi seen juddu bàyyi seen lépp topp ko lañu wax a gën a wér sëriñ Mansour Jaw mi moo ne sëñ Tuubaa yàlla kese la woote moo tax muridullaahi ku namm yàlla ñëwoon dem mu ne ku ko wusi nag ci woote boobee mu woote nag yàlla defal la ca ngërëm defal la ca mucc defal la ca jub jërëjëf sëriñ Gana képp ku ko wuy si ci woote boobu mu wootee yàlla defal la ci ngërëm defal la ci njub defal la ci sa xemem teefu adduna ak àllaaxira tegal sa baaraam foofu maa ngi dell si ci yow waaye dafa mel ne dama dégg ci sa biir wax nga mel ne sëriñ bi ci sasin muy mille trois cent ci la Maam Mor Anta Sali génn adduna te sëñ bi ku nekk xam na ne ama saraa la gane adduna xat li dal qadimu man xat saraa sariatul muxtaari ama saraa ama saraa mooy mille deux cent soixante-dix mille deux cent soixante dix boo ko moyee ci mille trois cent trente ans képp lay des xoolal googu dogu kon Serigne Touba bi muy taxawal yoon wi ci yéen ndaw ñi li ngeen ci war a jànge mooy fan fanweeri at la am bi ma Mamadou Sy li génne adduna sëñ gànn nee na dem na gànnaar dem gànnaaram gu njëkk googu waaye les certains auteurs dañoo wax ne dafa jàngi woon arab booba waaye déglul sëñ Basiru nee na laata muy dem bind na Mawaahibul Quddus waaye ci Ummul Barahin reprendre ko ba way juram di jangale ci daara ji serigne Mor Anta Sali jangal ko serigne Cheikh Coro ak serigne serigne Afia Maam Mor Anta Sali jangalal na len bopam mawahibul khudus mu reprendre manam téere bi ñu al Nafis nga xamne al akhdar yu la ci way ta boba jamono rek la ko reprendre reprendre bidayatul hidayah bu imam Xazali tuddé ko mu layinu sudóor kon serigne Tuubaa bamuy dem gànnaar leneen la fa wuti won lu am jang waye ci dogom gu mag gogo rek da ngay gis ne bi señ Mor Anta Sali génne aduna ñu diko yobbu diko di kodi daf né mom day dox day dox dox dem dox dellu kon señ Gana tegal sa loxo fofu ma ñew ci Serigne Bousra sambu ñewal ma ci le 10 août 1895 bi Serigne bi takkaloo fasam woowu génn nak wara a dajeeg nonam yi jéwal te bis bobu di bis bu tiis bo xamné ne ma waral magal gi ñu jub ci Serigne Bousra sambu euh, jërëjëf sëriñ Omar ah maa ngi lay woowee turu sa waajur xamoon naa sa bàyyi sëñ Omar Fall ca kaw la xam ak sëñ Maxtaar sama ak maase xam nga kàddu ak euh, kàttan ak barke ci bàyyi lañ koy jëlee. barke la xamoon naa sa waajur bu baax moo tax sama xol sedd bu baax. sëñ Gana jërëjëf maa ngi lay ndokkeel ci waxtaan wu rafet bii nga def. yàlla seere na ak sëñ Tuubaa ni di leen déglu ngeen di wax fii mu ne moom a dàqal di <laughs> waxtaan ndax macha allah waxtaan wi rafet na lool te wér lool te lépp tegu ci na mu demee rek ndax sëriñ Tuubaa moom lépp fépp fu mas a jaar rek tërjëma nañ ko bind nañ ko muy nii nga ko nettalee def nga parcours bu rafet. ci digënté ama charan ba mu feeñee ba bii mu woté bi mu woté itam nak nonu nga ko waxé ñako ko top ko jamono daldi di salfaañoo aslëf ndax ñako ko topp sëriñ bi di leen yar ci babu tarbiya ci buntu bi tarbiya ñu nangul ko jaayanteeg moom ñu gënal ko léppam bu tufee ñu far bu nàccee ñu naan lu mu yàbbi ju sax ku ko mas a gis bu sa bët dalee ci boom ci jëmmam bis boobee nga ko gisee ba keroog ba ngay génn àdduna foo taxawati day mel ni jëmmam a taxaw ci sa kanam ku ko mas a gis moom sañ Tuubaa bis ba nga ko gisee mooy bis bi gën a texe ci sa dund ku ko gis fàtte sa lépp fàtte ñëpp ñu topp ko muy dox jëm ci boroomam ñuy dox doxin wu sell jëm ci moom àdduna bépp teg ko bët nag mu wan gannaaw lépp daldi toxoo mbàkke kajoor googu nga wax ñëw mbàkke bawol gi nga xam ni mooy ardul wilaadaam fi la jëkk a gise jaww ji ci zaahir fekk muy dëkk boo xam ne bii dëkkub maamam la mu bokk ko ki bokkam Mbàkke def njaxasum nit waaye li ci ëpp lépp kon jolof di ay sëti maamam sëñ bi ca kersa ga ak teggin ya ak ñàkk yàkkamti àddunaam tax nekku Mbàkke googe ak mag ñi àndoon ak moom rawatina Seex Ibra Faal Baabul Muridina daal di révolutionné doxin wi nag ndax nangootul ku maslaa ci sëñ bi nangootul sëñ bi maslaa boppam nangootul ko ko jox benn loxo nangootul ko ni nàmbaala mbaa la nangootul ko sukk ci kanamu sëñ bi tàllal sab tànk wala nga jox ko benn loxo loo ci def rek mu jubbanti la te sëñ bi xam na ni Ibra Seex Ibra mi lii muy def yoonu boppam la ndax ba muy door a dem Mbàkke Kajoor waajuram di tool a door a dem léeg-léeg nit jëfandikoo noo xam ne nii bu la kenn bëggee jàjj ci mag ñi day wax bàyyil defal ni yàlla mën a faj te bàyyi ndax kiy faj lee mu ñëw kon kooku xamoon na ni Seex Ibra Faal dana ñëw bi Seex Ibra dikkee foog Sëñ Tuubaa teg kaw doxin woowu nag metti na ci njëlbéenu Mbàkke sëñ bi toxoo Mbàkke sañ ci Daaru Salaam foofee xad ishtihaar al qadimu fi haadihi al ahwaami siiw na fi lool nag nit di ko dégg ñii xam-xam bi lañuy dégg ñii wilaayatu gi la dégg ñii jegg gi ci yàlla la ñuy dégg ñii dëddu adduna gi la dégg kenn ku ne ak li la li ngay kumpawu si ci moom bi mu sañcee daaru salaam sax fa ab diir génnati fa sañc lewam bii di Touba nga xam ni am na particularité ci suufus adduna si moom Touba ndax dëkk ngi boo xam ne bii Sëriñ Touba nee na yàlla defna na moo gënal yàlla ak rasulullahi ci kaw suuf wachal ilahi wa wal tachalu ya rabbi ahaba maskani fii ardina lakka walil maahisani dëkk ngi boo xam bi yàlla lañ fi jëkk a jaamu yàlla rek lañ fi mas jaamu kenn ku du yàlla mosu koo moom su fee jot ci xërëm mësee su fee tuural deret ku yàlla loolu it feeñ ne ba léegi ni sii ci foo mën a duggee dëkk bi di dox ba bëgg koy génn da nga gis worma ju yàlla wormal dëkk bi ci do tek sa beut mukk ci koy xoti wormay diine di ŋàbb pon ci loxom di dem mba ko def yaramu neen di dem da nga xam dal dëkk bi yàlla mom marke nako mom motax sëñ bi wax ne wacc allah ya rabbi ahabba maskani fi ardina lak walil maahisat yi bi ci dëkk bi juróom-ñaari at la fi am juróom-ñaari at yoyu ci la ñeent fukki atam mate ci la gisee ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii jaayanteeg moom tukkeem bii mu yen bu diis bu metti ñu wan ko ca liñ ko ca wan dig ko ca lañ ko ca dig mu nangu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebbi na ko ci yebbi muta ni ko ndax dama laa bëgg ngir yaari yëf yaa ma sa doon yegsi ci wirasatu nabi wirasatan kaamilatan sirran wa alaaniyatan te amagoo ñeent fukki at yaa ëpp loo ma tagg ci mboolem ku ma sa taxaw ci kaw suuf kon nag li yàlla waxoon Moussa laay wax fa xus ma aati fi ko wan kunna shaki wa kunna shakirin sëñ Tubaa ne dimbali ma te bu ma yërëm moo tax képp koo bëggal ndam danga koy dimbali waaye doo ko yërëm mu ne ko dimbali ma rek te bu ma yërëm luñ ma teg lu mu diis diis diis su fi fekkee ruu gi nga xam ne moom ma ko yàlla ko moom warlu naa jom ju ko attan ak ngor gu ko attan ak gëm gu ko attan ci la jaayanteeg boromam yoonu géej gi tukkeem bii dal di génn tuubaa ca kori woowee loolu aw koor la ama bay sa Chine ñu wori mu sañ mu dem dëkk bi ñuy wax Mbacke Bari Mbacke Bari soriwul mu ngi fii ci Jolof alxaaji Mouhamadul Fadil Mbacke bi jumaa ji yeggee bi muy bi ñuy programme téli bii nga xam ne moo war a jóge Touba dem Jolof dem Linguère moo sakku tëli bi jaar biir Mbàkke Baari moo tax mu romb ko moo jaarale téli bii jël Jolof ci barabu maam maaram bi moo ko robbale Mbàkke Baari Mbàkke Baari googu maamam du ñu wax Ahmadou Soxna Bousso moo ko féetewoo woo woon doon doomi maam maaram sëñ Touba delluwaat ci dëkk boobee di Mbàkke Baari bi muy dem dafa namoon ni bu ko ko fenn fekk waaye lu ne lu mës a digle def ko ba des ma fi kenn fekk mës a digle def nañ ko ba mu des barab sàngam bu ma fa kenn fekk bi mu demee Mbàkke Bari aw kori la fa dem aw diggi aw tëbaski aw tamxarit aw diggi muy weer wi nga xam ne tey la benn panam Sëriñ Tubaa nee na li ma xamal ni sama ñaan nangu na mooy iblis ràbb ñaari njabar genn gi mu sànni ko ci xorub sëriñ su xañaan si ak tubaab yi ñu fiire ma àdduna génn njabar gi mu sànni ko ci xorub doomi soxna yi diir bu gàtt ne na sama kër gi fees dala ki bataaxal tubaab yi naan ma yaay bëgg def nangam yaay def nangam yaa ngi fexe nangam te xam nga ni léegi iza aradallahu amran hayya lahu asbaaban yàlla su namee mbir mooy manigancé ay sabab sëñ bi ci ni mu doxee ak trajet bi mu jël ak itinéraire bi mu jël ak moom ki mu doon faw nag def na ay inquiétude ay njàqare ci xoli tubaab yi ndax bi nga xamante ni bii Kajoor tas na damel yi jeex nañu en 1886 barag ci wàllu daanu nañu buur yëpp daanu nañu nga xam ne Sénégal léegi doon na protectorat duggaat na ci loxol France ñu doon ba ñëpp sëñ Tuubaa euh, teewee na ci kanamam tubaab yi noot leen rey leen. ña nga xam ne ñooy famille famille aristocrate yi nga xam ne ñooy doomi buur yi ak lawax yi ña ci bari dañoo daw réfugié wu ci ginnaaw sañ Touba moo tax Touba gii doomi soxna joo fi way askanal ko Kajoor mbaa Jolof mbaa Njàmbur ñu ñu di gor seen maam ya doon bañ démb ndax bekkiti ceddo yooyu yëpp dañoo daal di daw dugg si nag ci yoonu murit loolu tubaab bi xam na ko ba noppitam itam Touba gii sañc gi nga xam ne la création de cette ville de Touba aspect bi mu yor géographiquement loolu dolli na inquiétude dolli na njàqare tubaab yi ndax Touba aw ngat la nekk ab réew moo xam ne surface limitrophe la jigéwul bopp gaar jigéwul bopp dex climat bi ostil na waaye nag mu jige réew yépp nag mu jige jolof jige njaambur jige kajoor jige jige nga xam ne suuf la soo xam ne si stratégie de guerre la la nuuru tubaab yi nga xam ne bu sëñ tubaab takkoon bu xare réew yéppay màbbandoo loolu tubaab yi remarqué na cautionné nañ ko ci Touba avancé gi mu avancé ba dugg Jolof nag te booba Jolof itam desee mokk loolu gën a tee dolli njàqare tubaab yi tubaab yi nag di ko bind nag ànd ak mu fàtti soona yi ak rej yi ak rambaaj yi waaye booba di sëñ Touba wax rek moo wér muy sababu xaybati yi anna laaha araada an anaala minhu jaaha wa an akoona xaadiman fi daw mi wa an akoona shaafian li xaw mi yàlla daal di indi ay sabab yoo xam ni lu ci nekk nag dafa nuru lu tubaab yi ma a teg seen loxo ci ndangam lay fexe ndangam lay fexe ànd ak it sëñ Tuubaa ci boppam du miim xam nga miim miim jàmbaar du miim ndax ñetti juge rek am ñetti attekat rek am yàlla dina atte yàgg dana atte temps dana atte ndax wala fi ne bu njaab yàggee rek nga war feeñ waaye xaatir dana atte kenn ku ne mën ngaa atte sa bopp ndax bu ne nangam ji yéen ñan ci ko sàcc ki ko sàcc xam na ko ki ko sàccul xam na ko sañ tubaa moo tax du miim tuuma yooyu yëpp mu wéeg moom ba bi ko suñ borom digalee ni ko di ko tontul bindal benn bataaxal képp wax li fi yow te jox leen ko teggil sa tuuma ci la sëñ tubaa bind lettre am boobu mémorable boobu nga xam ni ci loxol boppam la wax ni moo ko bind jox ko borom daaru mu yóbbu ko waaye fekk na xat xuddiyal amru fi saabiqa ilmi tabaraka wa taala moom xamoon na ni dana dem ci géej gi dana tukki liggéey li boromam ca bisub ñeenti fan ci weeru safara wa ca la waajoon bay bëgg a dem sun borom ni ko toogal ba ñu digal la ko mu toogaat amaat fa daanaka ñaari ay bis ba ca bisu fukk ba ak juróom-ñaar di ajjuma di juróom-ñeenti fan ci weeru août 1895 ca tàkkusaan sëriñ tubaa nee na ci la gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko tatanaa wërale la te wutaluma tata jubunt luy takk ba jubla dina fay dara du la mën a dara wa jaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi l aali wa man walaahu lahu xijaaban maanihan min dara su ma lahum shiqaala laa tax sar xarar sëriñ tubaa nee na ku yàlla téel sa cumikaay sa gannaaw du laal suuf guddi googee sëriñ tubaa a fanaanee wer ak ceek boo demee mbàkke baari gis néeg ba nga xam ne moom lañ fa takk gis xasidat hasbuna allah gi nga xamne mom la seigne touba talif kero muy guddig wax set mu waj ba jek yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko bo xeye bo julle fajar ba noppi bu dellu si kër gi seigne touba waj waj tay wo xamni lenn rek la ko ci yàlla fayee muy tay wu tol ni wi murid yi waji bisam bi xam nga ni bu fekkente ni li wolof yi wax deug la ni bis bu ne dimension borom lay yor barke sëñ Touba 18 safar kenn mënu koo jox àqam su fekkee bis boroom lay tollool bis bii ci suñu kanam kenn jox ko àqam kenn mënu ko nit nag bu ci bu jeexee ci mbir rek wàcc na bu ca dee wàcc na bu ca jeexee wàcc na waaye kenn jox ko àqam ndax sëñ Touba bi mu dem ci géej gi dàll weñ la tëggalu woon te dégg ku tëggalu dàll weñ moo gën a yomb gis ku ko def te moom la defoon moom dàll weñ la tëggalu woon bi mu dem ci géej gi mu xëy gaawu di fukki fan ak juróom ci weeru safar di bisu fukk ci mois de août moo tax datu 10 boobu ëpp nay fàttali fàtte ndax moom la tubaab yi xam tubaab xamul Chaabaan xamul Ramadan xamul Shawal xamul su suñu xëy tubaab xamul gàmmu xamul rakit gàmmu tubaab janvier la xam février la am xam mars la xam yooyu la ñu xam moo tax bis bii fi sañ tubaab jóge woon noo xam 18 safar waaye 10 août gi nañ ko ci boole ba xam ne tubaab yooyu mooy la plus sanglante défaite bi leen sëñ tubaab jëkk affligé ci kaw suuf fukki fan ci weeru août bisub sëñ tubaa julli fajar ba noppi ci kër gi bi mu bay bëgg a ci kër gi lam xelam dem ci lim jaayanteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw ci diggante jàkka ji ak buntu kër gi mu ne sama bagage yëpp fekk ci kër gi fekk ci mbedd bi mi ngi sol ay xaftaan yu sutaate ak i jàllaabi jël ay jàllaabi du su neex noonu Cheikh Saalihu Mbakke daan soroo sol ay yére yu sutaate ay xaftaan ak i jàllaabi jël ay kaala laxas ko ca ndiggam la ba ca dënnam ba lépp mu yeew ko ay kaala muuru ba toot di fekk ci kanam bi bu xoolee moom sëñ Tuubaa ga defeen kawar la bu gëmmee nga defeen bu xoolee nga defeen kanam gépp ay bët la bu gëmmee nga defeen xaram gépp kawar la mu ne ci ka alxuraan sori lool ñu indi gaalam ya ak maxtume yi gaal yi itam yomb naa xàmmee ndax mboolem gaal gi demul ci kii gi wenn jàpp rek la am ci digg bi ñu takkal ko fas ñax wéru wét muy fas ñax awnullaahi muy ndimbalul yàlla muy fas woo xam ni aw mol la ñu indi fas yi ba ci buntu jàkk ji Sëriñ Tubaa nee na bañ ma téelee déggalu fas yi ba ma yéegee ca fas ka fas wala gouvernement bi yàlla bépp war ànd ak man ratiixi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil barihin aduwu keroog sëñ tubaa ngi naan inni lam arju siddiqan wala axaf adwan ragaluma sama noonu yi may bëgg a dajeel yaakaaruma sama sopp yi ma wër zimaami bi aydil jundi daaru maay la daa zawil jahli wa tadlil yawnani min alam ila nasrina qad saarahu maqyulihim wa qaafal ida minhum wa maadu ila salam gis naa baydu woo xam ne ci la sëñ tubaa ñaane ne yow yàlla nëppal tubaab yi sama baatin buñ ma gaaw a xam nañ ma jàppi benn waaye rek lu leen neex teg ma ndax ma mën a am li ma bëgg ndax buñ ma xamee ni Ibra Fall la ñuy def gis naa fu ko sëñ tubaab bind dafa wax ni wa bihi zahzahil ahadiya an nii walta sun lii an hum dawaa man bu tóodi sëñ tubaab wax nëpp nëbb leen sama baatin buñ ma xam kookoy góor koy jàmbaar taalibe bépp ngi taxaw ci ginnaawam sàppe ñoom ñëpp avec un muet désespoir seen yaakaar ya yolom lool ndax xamuñu lii fu muy mujj xamuñu fu war nañ di mujjee ki bu bëtam boo kudul yàlla boromam ak rasulullah ñu muy liggéeyal ak moom ahmadul xadim xamoo liy bëgg a xew ndaxte tukki boobu moo ko mas a tukki ñu dee di ko màggal ku tubaab yi mas a jàpp sa bàmmeel sor na sa bopp say bopp ku tubaab yi mas a exilé fële leen doxee tàbbi géej moo tax toujours may wax ni exil égale exécution pure et simple tubaab bi mosuñoo jàpp ku dellu si waaye sëñ bi dafa wax ni la in xarra nii man xarrahu zannu xaasidan fa maa garranii man jaa anii bi takarrumi fa man yulxinii fi lbahri lil jahdi zaqilan faqad jaa anii fi lbahri juudul mukarrami fa man sadda anii fal mawaahibu akbar mooy lii min alwaahidi lmuxni xafis almuqaddimi lépp loo xam ne nar naa xew boobu adduna tukki sëñ Tuubaa wax na ko moom kay yàlla noonu may nu fekk ci lu bari waaye fekk lépp àjjana rek lañ ko def kooku mooy sëriñ bi ci bisub gaaw boobu mu war bi mu yéegee ca kaw fasam wa murid ya wër ko dafa laaj ni ana lii may bëgg a def lu ngeen ci xam fii ma jëm lu ngeen ci xam lii may bëgg a def lu ngeen ci xam ñoom ñëpp ñu ni cel ndax ñoom kenn du ci waxte laaju la mu ne ana ahmadu su ne ahmadu tekk rek nag te tegu ci wenn tur sëñ ma dumbe lay wax su nee seex tegu ci wenn sant wala wenn tur sëñ gaawaan lay wax mu ne ana ahmadu sëñ ma dumbe dafa daal di dama am xar rek wëndeeloog moom daal di xaacu ca kaw ni ko mbàkke na ba dara dekk nan dee ba jeex mu ne ko ahmadu wéeral xel lii nga wax dëgg la ci waaye lii néew na doole lool ci ñuy bëgg a dajeel taxawal te déglu ma daal ni ana seex sëñ gaawaan daal di yuuxu mu ne ko loo xam mu ne ko mbàkke woon ba ma la xamee ba tey xaw ma dara ma ne tubaab yi boo leen joxoñoon ñu tàkk nga jëri leen nit doomu naawit du tee keroog laa lay gën a gëm boo la joxoñoon nga tàkk di lakk ba doon doom ñu jër la nga naawit keroog laa lay gën a gëm ku mu laaj rek ñu ëpp ci ñu tontu seen yit seen xel dafa gën a lëng ci jihaat ci jihaat ñoom ñëpp seen xalaat di gën a dëgg rek ci mbakk xam nga kii nan dee ba jeex moom jihaad rek la kii sëñ Tuubaa ni ana masam ana ana Abdourahman sëñ daam ni ko Mbàkke mu ne ko Abdourahman lii ma bëgg a def loo ci sa xalaat mu ko Mbàkke laajal sa borom li ngay def mu wax la ko nga def ko te noonu nga wax noonu ni ñu def nga def laajal sa borom rek li ngay def def ko te noonu nga wax noonu nu nuy def ñu ko ak sa Abdourahman ارجعوا ولازم بطاعة الله إني أودهتكم من ما أودته شيئا وحصل فيه ما يسوري توغلين تموي ولجي بلكين يبدأنا أن متصل تبا وقني يبشره زني الذي قادني إلى دعائي فبشر من أتى للنحبة نحبة تبات اللغة مويكو يكت بو نيو نيو بغي دوي نانغونا تي لام نيو كوما دوي موي سيغ موركان باي مختلا وارغا كو خام بو باخ ñooñu jërëjëf El euh, euh, Hadj Bousra Samb xam naa yaa ngi dëgmal jeewal te jeewal dafa am importance ci tukkib sëriñ bi ndax jeewal li ñuy tuddee badar dafa répété wu waat ndax ku nekk xam na ne ni nga ko waxee iblis dafa rabbu ay njabar sànni ko ci ay xol yetti xol. dafa ram ràbb genn jabar, sanni ko ci xolub serigne si ñi diko ko fiire ndax hadiye jiñ koy jox ak di xawi ko ci garab ya di kisuf, ci suuf lu mu wax kenn du ci tek baat te gamun serigne amul lu àllarba ak dibéer ak ngay ñu sarax la ginar serigne bi di laaj addiye ñu di ko jox diko bolé ki joy mu rabbat geneen sufsi sanni ko ci xoli sàmm ñu ne mom ka day occuper suuf ci te bu occuper suuf ci nun dootul am fun sam mu rabbat geneen jabar nak sànni ko ci xolu ceddo yi ñu ne moom kat kon da koy wut nguur ci tuuru diine doon ko ci menn maam nguur rek la bëgg parce que toog ci kaw ñëpp toog ci suuf nga naan yàlla nee na di la jël ñu la jox wax dëgg yàlla loolu dafa neex kon moom nguur lay wut ci tuuru diine wadxalil illahu fi bi man tasababu fi naqlihi zaaka zaman ixraajuhu ila al bilaadi naaiya wa naala fiha fawxa samin saariya kon mu nga mal jeewal gi nga xam ne dafa répété wu di badar ndax dañu wax ni iblis dafa ku suraaxatu ibn malik ñew daal leen wax ne khala la xaaliba lakum al yawma wa inni jaarun lakum bu leen am lu ngeen di tiit ndax ma ngi and ak yeen waye ba mu gisee jibril rek mu war ci ko wax ay soom daf ne ah khala inni bariun minkum inni ara ma la tarawun inni aqafu allah wallahu sadidul hiqab man kat ma ngi gis lo xamni gisul leen ko kon man bayina dawna motax seigne moo tax Moussa Ka fajarub gaaw bala rañane bari Dajek tubaab ba daldi di yendu jewal fanaan fa bood ye reyna duñ ko siwal kérok la jëk gis ahlu badrin ba mu xëyee subak dibéer lañu ko dar nee kérok keroog ngelaw mu jibril gogom ba mom la andal ka annahu ka annahu wa huwa far ta burdu mo doon dexinu far fa lim ci jublu moy ka annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi haskari ayna talqa wa fi hasan. yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nek kenn ci digg xare ak nek ci mbolo ñoyam kep kon mom njambar googu nga xam iblis iblis wat na keroog euh, Serigne Touba ngir badar gu répété wu kon yang jëm ci jeewal fofu ngay tek sa loxo ma ñew ci Serigne Abdoulaye Diop bisri Serigne bi xam nga dafa dem ñetti voyage ñibbisi té Serigne bu Sala kenn mësta dem dellu si mu dem ci geej gi ñibisi dem bi mi dem nak dafa am lu taxone ñi di fa yobbu moy buñ ko fa yobbo nit ku ñuul amna complexe nar bu fa demee ña fa ne ci ay boromi xam-xam gànnaar goo xam ne abdullahi ibn alawi yu ma nga fa gànnaar goo xam ne mualla ma nga fa gànnaar goo xam ne muhammad ibnu asan ma nga fa gànnaar goo xam ne maanaam banni daymaan nga fa gànnaar goo xam ne sërif surafaaw yëpp nga fa borom xam-xam yëpp nga fa yor der bu weex bu fa sëñ tubaa demee sori na nit ñi duñ fa mën a dem ñaareel ba nag mooy bu fa woote ay taalibe du ko am ndax naar yaa ko ëpp xam-xam kon sëñ ablay job ga bisiri Serigne Touba nan la toje gànnaar bannaar yi jebul ci mom diko ramal wa waa kay jërëjëf mam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf El Busra ci waxtan wu am solo wi ak El Hadj yalla yalla sam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu xam nga bimu joge ci geej gi ndax damay bayyi sama mbokk yi ginnaaw buñu ñu mm-hmm. man comme ci gànnaar nga ma laaj. bi mu ci geej gi juroom ñaari at yu top ñibbi si 11 novembre 1902 ci la ñëw bi mu ñëwee dem na ndar ndar diir bu gàtt la fa def fukki fan ak juróom mu yónni maam Cheikh Issa jenn borom Dieng ak Lagan mu dem ko wool borom Daarul Moxti jàmbaaram ca ñu gisee defe naa tey moom la ñuy màggal ci nisfu Saxbaan ca Daarul Moxti ba mu fa jógee dafa jabal si Louga fa la umee kooram googu ci fin 1902. bi mu fa umee koor diir bu gàtt mu jàll siise ñeenti fan ya ca bari jàmm siise juróomi fan yàlla ñëw kër sañ séréloo sànnoo si fa nekk di leen naafal ba fa la korite sànnoo seet lu bari xew fa fa jàmbaar ji nga tudd léegi sëñ Ibrahima Diop almasar yi jébbaloo fa la ko sëriñ Tuubaa jommale woon ci bor bi mu amoon muy boru juróomi téeméer te mu sadd ay woy nëbb woy ya njabootu boppam xamuñu ko jox ko yàlla sunu boroom fa àlla ya ad yunun axsamtuha baynal kiraami la ala an yaqduha bind ca euh, bayit yu rafet muy bor yi ko daloon mu ni séddale naa ko ñeenti saaba yi abu bakar omar ousmane ali ak seyduna muhammad mii seen sang di sunu sang ñu ñépp jël lettre boobu suul ko jël li ñuy wax njarwañ geenu fas li ciy sew mel ni kawaru jigéen ñi li ñuy léttoo moom la ko lëmase daal di suul booba ca kajoor booba seexul xaddim a ngi ci géej gi jugeegul ci tukki bi 1902 googu mu ñëw bi mu tollee Sànnuusi ci la yàlla dogal sëñ Mor Absa sa mii wéy juru sëñ Ibrahima Diop almasar yi yebal njaboot gi nu ziyaare ci seexul xaddim ndax booba Sànnuusi ñépp a ko doon ziyaar si di ko ndokkeel fa la sëñ Ibrahima Diop almasar yi ñëwee ba mu ñëwee ba nuyoo seexul xaddim bay génn sëriñ bi woolu ko ba mu delsi sëriñ bi wax ko ni sa bor ba yëg naa ko ni ko laata ngay toog jox ma mbuus mu def koppar amoon na juróom benn téeméer sëñ bi berloo ko téeméer yi juróomi téeméer ya mu xamal ko ni Abu Bakar nee na téeméeram a ngi ca bor ba nee na téeméeram a ngi ca bor ba Ousmane nee na téeméer a ngi ca bor ba Aliou nee na téeméeram a ngi nii ca bor ba door ni ko maa wuutu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama téeméer a ngi ca bor ba keroog la daanu jëllu wax ni amatul cofeel ci Bagdad amatul cofeel ci Fas fu mu fekk Sëriñ Tuubaa ci Jolof jaay na fa ay nokkeem maa lii li Bagdada sawkun laa wala faasi lakin bi ruya Jolof xat biatu an faasi zaakal xadiimu xadiimun laa yumaasiluhu man xalla aw jàll min jinnin wa min naasi zaakal xadiimu lazi xat faada dairuhu wa baa man lam yazur bil buusi wal baasi dem bay tej muni ne wa man kana maskanuhu fi batni Baghdad aw fi misra aw fas ponkal mom nga xamni bin na lu ne ci sëñ Tuubaa foofee la jébbaloo won jox bopam serigne touba mu joge sànnoo si na ci beurep yu bari bok na ci beurep yi mu jall ñaxal bok na ci beurep yi mu jàll kër Mandumbe Xari bok na ci beurep yi mu jall dem na fuñuy wax mbacke kadior ziaré bayam sëñ Ibrahima mbacke mi nga xamni mok mamour Anta Sale bokk lepp bokk na ci bërëb yi mu jall dem na daru salam waye daru salam mu fa ñew ci 21 janvier 1903 mam Cheikh Anta borom deureum ngeureum rakam ju deugal ja ganale ko gan go xamni ni ñetti fan la bis bu jot juróom-ña fukki nak ak juróom fukki geleem ak fuki fukki xar ak juróom fukki bay ak juróom ba ñetti fan yi mat mu nar a tër nit rendi ko ngir santale sëriñ Tuubaa ci ñibbisi gi nii bu ko nit ñépp yëgee njanaaw yi sax war na yëg ñi sëñ Tuubaa ñëw damay teral tan yi ku ñuy wax askamara moo ni woon day ñu rey ko jox ko tan askamara moomu nag taalibe sëñ Cheikh Absa la woon bu mu joxoon Mamor Jaara borom saam yàlla dogal sëñ bi goreel ko ba mu fa jógee la door jàll ji daarul mannaan daarul mannaan nag moo indi waat coow li ko yóbbu gànnaar ndax xam ngeen ni bi sëriñ bi ñëwee daarul man naan diir bu gàtt dafa am lakk gu ko dal bi lakk gi amee mu dem daaru alimul xabir ndaam toog fa ab diir yebal taalibe yi ñu defaraat kër gi bërëb boobu nga xam ne borom daaroo fa newoon bi ñu defaraatee kër gi mag ñi defar ko ba noppi sëriñ bi sant maam Cheikh Ibrahima Fall ak maam Cheikh Anta borom daaru salaam ñu jëndi ay meubles yu ñu installé ci kër gi ñu demoon ndar di ko jëndi bi ñu jëndee lal yooyu ak toogu yooyu def ko ci ay saak sëf ko ci kaw gëléem yi ñëw ba tollu dëkk ba ñuy wax googo ci wetu ndar ca la ñu dajeeg benn pël bu ñuy wax Demba yi moom moo ñëw fekk na agent secret la mu laal ko ci loxoom daal di signalé ko mbaaxaan ni Seexul Xaddim daa mel ni génne gi ñu ko génnewoon yóbbu ko ci géej gi da koo metti ba tey mu ngi waajal jihaat pour jëm si ci seen kaw loolu yàq na xelu tubaab yi biga nga xamee ni mbaaxaan bind na rapport mbaaxaan tam tuuma yooyu bi mu mu tuumaal Serigne Touba ci nasaran bi ni leen day préparé jihad moo tax Serigne Touba ngeen dégg ca yaa jumlatan qad sallasoo bi dalalihim man lam yakun lahu waladun aw walidu ahrajtumuni naafiqiina bi annani abdul ilah wa innani lamujahidu mujahidu wa zannantumu anna al madafia indana wal kullu minkum zu qillan wa yuhaasibu fa maqaalukum inni ujahidu sadiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan qadiman wal muhayminu shahidu génnewaat nañ ma ñuy wax ni damay def jihaad damay def ger sent dama denc ay ngànnaay ci sama kër te ñoom ñi koy wax ñépp kiñaan moo leen jàpp ak bañ lu baax ak nangu ni jaamu bi yàlla laa bu koy jaamu tey liggéeyal yanant bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag bi mu amee ñu tuumaal Serigne Touba ci daa yor ay ngànnaay ci la tubaab bi nag wote boba chef de canton yi ño fi ëpp galon ñeppay dik wuy ci wote tubaab bi ñu dal di wax nak ni Serigne Touba li ñu ko jiñ nu mu demee bi laaj nak mbaxaan wax ni non la démé dafa yor ay ngannaay te dina dem visiter ci ko ñeneen ñi ci dugg ñepp ruuxale ñu yaq xalaatu tubaab yi ci la nak ku ñi wax ñew sérel serigne Touba rafet mo wax nasaran bi ñu leen li ñu Serigne Touba amul cheikhul khadim mi ma xam yalla kep ko ñor ak yanantu bi ak alquran man de ci dola waye duma fekke ay tiaxan serigne touba dencul ngannaay wajalul guerre du togn nitu jam la ñu ne ko yow buur siin kii ngay défendre lutax nga koy défendre mun dama nangu deug rek motax ma wax len deug gog ñu ne ko li nga wax suñ ba yek ni denc na ay ngannaay lepp lañu tek ci sa kaw ci daan folli la nga ñak say galon mu ne d'accord ñu ne ko suñu démé ba gis ni liñuy ñuy tuumaal sëñ amna am na dootoo tekki dara ci nun mu ne nanguna kele tamit nga xamni mo moo tuumaal sëriñ momit di def ay yitte pour tubaab bi gëm li wax ci la buur siin nag ndawam mu dik gis ci sëriñ Tuubaa borom wax ci la dajal ba ko waxee borom daru mu ne kon nañ and dem ndam nga wax sëriñ Tuubaa li buur wax ba li bursin ca ndaam sëriñ chandam déglu ko mu ne buur siin ma yoni tuuma giñ la tuumal tamu mu défendre la légui nak tubab bi dañu ragal ceddo bi la tuumaal ceddo dafa am jikko ju doy war man nañoo jël ay ngannaay gaw ko sa kër ba pare gëmloo ni ya ko fi def fekk defoo ko fi lool lay ragal nak, pour seetal honneuram comme défendre na la bëggul nu bayyi fi ay ngannaay ci lo yegul takal la sëriñ bi nak nang wax ju rafet joju ci la dajeeg buur wax ko ni mom li nga may defal lo ci jublu mu ne ko dara mbàkke damaa bëgg loolu ñuy wax dawkat ab xaj na muy àndeek boroomam bu ëllëgee naa ko mel ci yow ci biir yow mal xiyaam ci àjjan sëriñ bi xam ne li sincère la ci moom mu ne ko sàllaaw doo torox fii doo torox fële doo folliku fii doo folliku fële dinaa la fal fii fal la fa ñu jëm ndax lu rafet lii nga ma waxal daal ni ko li nga wax nañ ci bàyyi ay xel taaliba yépp génn nag gaw kër gi wër ko ngir bañ saay-saay yi dugal fa ngànnaay yi bi nu ñëwee itam gis nga visite bi ni mu demee xam ngeen ni gaali sëñ Tuubaa yi lañ doon bënn di jàll ci kaw xay na dadul teggin di ci jaara ndax kooka léegi mujj na tuub ba mujj na yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall tudd Abdul Xafoor waaye ci boobu jamono daal teg nañu fitna yu metti kër Cheikhul Xaddim sëriñ bi ne baltu tàkk na ñëpp dalta toog daam gi nga xam ni mooy rabbi maestro muy ñaan mu wane ni suñu borom loolu tribunal nag ci atu 1903 muy dem di wuy ji ba tubaab bi décidé ni dañ koy yóbbu soit Madagascar wala ñu yóbbu ko Mauritanie ñu am deux choix teenu koo yóbbu Madagascar ñu ne wala teen koo yóbbu Mauritanie fekk na booba Cheikh Sidiya Baba radiyallahu anhu di sëriñu xaadar bu mag nekkoon gànnaar di kilifa ci xaadar ya bëgg sëñ Touba lool ñu waxtaan ak Cheikh Sidiya ci mbiru sëñ Touba mun leen man de yàlla rek a tax may wax ak yenant bi sama maam Cheikhul Xaddim liñ ko tuumaal demewul noonu sëriñ Touba de du tooñ ñitu jàmm la du tooñ du yàq ñu ne ko ndax buñ la dénkoon sëñ Touba. di ñu ko mëna teyel mu né waw li mo waral ñu décider bayyi Madagascar dogal nak ni Serigne Touba dañ koy yobbu gànnaar lolu moy zahir bi waye batin bi Serigne Touba ko waxal bopam dani man zanna sayri ghibba ama il umra lam yakku sayra aksasin siwa jaza man li yaqada ba'd waadanan jaza cheikhul khadim dafa wax ni kep ku njorti ni sama tukki bi ma may wat ci gànnaar ci atu 1903 mooy ak sësin dafa tolloo ñu mën koo comparer ak tukki bi ba demoon ci géej gi muy atu cent 1895 ki njort ni benn lañ ñoom ñaar ay nattu la kooku dafa réer xamul li xew nee na kooku dof la te ku réer la mm-hmm. ñu ne ko lu tax mu ni sama tukki ci géej gi ay nattu la woon yu ma yenu ji ngir turu islaam sama tukki gànnaar nag ak pay la gu ma yàlla war a fay rémunéré ma jox ma sama salaire te gànnaar la ma ko digee ndax nitu ya nekkon gannar liggeel fa seen borom dañ fa bayyi ay leer yo xamni leer ga ngay ball ci seen kaw xabru ya ta war dem jeli ji loolu lépp ci payu yalla sama borom fofu la ma dik kon zahir bi lañ tuddu nonu leral la historique bi mais batin bi fay la gu serigne Touba di jeli ci gannar bi mu ñewé nak mu dem sarsara nu yobbu ko sarsara bi mi demit xam nga Cheikh sidia Baba mi ngi ko booleel moko wara war a si mu yoni ñaari ndawam jox leen ay geleem serigne baangi duggé dagana bi mu duggé dagana nak daal di dem gànnaar. jërëjëf euh, Cheikh Abdoulaye Diop Bichri tegal foofu sa baaraam damay dellu siwaat ak yow ànd ak yow nu ànd ak sëriñ bi dugg biir gànnaar ak xar baax yam fa def. dafa mel ni résumé nga nu le 11 novembre 1902 bi sëñ bi wàccee waaxu Moussa Siri yëkkati loxoom yi te ñu defee ne day bàkku hmm. mu ne sama bàkk nga ca kanam hmm. mooy bu sama sooroor ya taxawee hmm. mu jaar foofu abu noonu mu wëree Kajoor bu ñëw Daaru Salaam. daal di ñëwaat daaru mar naan ruuxale yi tàmbaliwaat ba nga xam ne nag ci la faboo nag ngir war a dem gànnaar mu waxal boppam nag ne man zanna sayri e qibba ami ak shashi misla masiri raqsi ama jëy shashi zabata kawnahu jawlan xumra maanaam képp koo xam ne da ngaa jàpp ne sama tukki bii may tukki gànnaar dafa bokk ak bi ma doon dem ci ama jëy shashi neen ab dof nga gànnaar moom dama fay jëli ak pay sëriñ bi tuddee ko ardu saalihin di fa fekk gaa yu baax yépp kon maa ngi diil siwaat ak yow ci kanam nga dugg ak man gànnaar googu nga xam ne sëñ tubaa toj na ko fa ku fa mës a dugg rek joxe nga sa bopp waaye bëggoo fa taalibe sëñ gànne mesere maa ngi diil siwaat ci yow yow damay diil siwaat ci yow yaa ngi woon mbàkke kajoor sëriñ bi nag jóge na mbàkke kajoor ñëw mbàkke bawal sancgul daaru salaam def fa ab diir ñëw sanc daaru salaam jóge daaru salaam ñëw sanc tuubaa ñëw nag daaru xudóos fi la gise yonent bi sallallahu alayhi wa diggante boobu tarbiya gi mu doon tarbiya murid yi di leen yar ci himma rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi dar si fa xat wa rabba kulla waahidin minhum bi ma yaliqu bihi nga xam ne kenn ku ci nekk dalay laaj bi nga xëyee ba nëgg ni ñaata baat nga fi wax nga génn ci istixfaar génn ci salaatu ala nabi génn ci jàng alxuraan la ca des di larax mu ne la bu ëllëgee bu mu amati dem ba maanaam murid yi di nuyoo ak malaaka yi di dox ci sii sàkket di naan ndox mu tànk diggante boobu laa bëgg nga jëleel ma sëriñ bi mbakke Kajoor dikk ak moom Mbàkke jaar ak moom Daaru Salaam ñëw ak moom Touba Alhaji Gana Messere Maxtaar. jërëjëf Cheikh Ibrahim jërëjëf sëñ Boussra jërëjëf sëñ Abdoulahi Diop ci waxtaan wi ah, sëriñ bi bi mu taxawalee yoon wi wax ne ku namm yàlla na ñëw ñu dem woote ko ci Mbàkke Kajoor ah, mag ñi jaayanteeg moom ma wax la ne ba muy woote dana yàlla rek ci laa woote. ñi ko wuy siit loolu rek lañu àndaale kon ngërëmul yàlla loolu rek leen andi kenn ku ci nekk boo demee ci mbindum Cheikh Darou Assane Ndiaye moom nga cay fekk boo demee ci mbindum Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Jammoo yi moom nga ca fekk ba ci ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa yitte rek mooy dafa yar taalibe yi yëf yi mujj xaj xat sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na minhaaj bi nga xam ne moom la yoroon sëñ bi yoroon muy méthode bi nga xam ne moom la daan tërbiya mooy daan leen xiifal rawatina sax jigéen ñi waaye ba mbir ma siiwee nag ñu tàmbali di fitnaal yenn murid yi di leen xatal waxtu wu nekk sëñ bi di leen delloosi di leen muñloo di leen xool da ci saxaabatu rasul ñooy seen seeni baay ci diine ndax daj nañ lu gën a metti naq nañ leen ci ay ndox walal nañ seeni deret nangu nañ seeni alal génn nañ leen seeni kër ba tey seenu tagg na fàng ci alquranul karim بكم سأقول دانا لين تيجا للفقراء مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك الصادقون نعيل مون بأيك تنالين خنا دانا لين دوي الله بس بعها خمنة يوم ندعو كل أناس بإمامهم بس بعها خمنة بوجب بدأ جاكنا كون سترو نجيب تلان لايو بقول دين وعيين مريدي من الوجلة ده dana doy ci ku leen daan reetaan wala ku leen daan doye dal ba yëf ya xatee mu jóge fa ñëw Mbakke Bawal def fi ab diir Mbakke it ni ko Cheikh Boussra waxe bu sëñ bi daan julli ji danaa hmm. yóbbaale Cheikh Ibrahima Fall hmm. Cheikh Ibrahima Fall moo tax sëñ bi tuxoo Mbakke lu ne xew na fa waaye Cheikh Ibrahima daa mësul nangu ku jiite sëñ bi bu nit masaa nekk ci sàppe si bu keneen masaa jiitu buñ kàbbaree Cheikh Ibrahima day daw ci biir sàppe yi di doom sëgg nangam si nangam sëgg nangam siggi nangam mujj bi sëñ bi di ñëw danaan bàyyi bu ñëwee ba ci yoon wi day bàyyi Cheikh Ibrahima Fall ñëw agsi ba am na yu ci xew yoo xam ne au fi baax umur ma la jibin ginnaaw bi sëñ bi sañ ci dëkk bi ñuy wax Daaru Salaam di dëkk bi mu njëkk a sañ mu sañ ko ci désës muy 1304 hijriya dekk bobu ci wéru wii di safar lako sañ ci muy daru salam ñaan ci borom amit mu nekk bu yar bu tarbiya dekk bo xam dekk bu jamm la ndax rabbi biha min al wara mara la yuat ya khayra man rabba wa khayra man waat muy dekk bo xamne it mag ñi fa tambalé di di jaayante waxtu wu nekk ku dégg señ bi rek ñew ba mujj dëkk bi xumbu lool jaxaso bi tàmbali am ñenn ñi denc seen bokkoo bi di Daaru Salaam ci wëssas di 1306 jël dëkk ba ak ñeen fukk do nga ak juroom ñent rafaatale lako rakam Cheikh sidil El mam Cheikh Anta Gaawaan di ñew ci dëkkam bi di tubal mahrusa muy dëkk bo xamne bimu fi ñewit euh, na ci bërepp yu bari bi muy xol li fi nek ndax bërepp la bo xamne waaye Touba moom tànnal boppam ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba ngir sëñ Touba moom ko. Mhm. bi sëriñ bi jaaree ci yeneen béréb yi ba suñ borom woon ko bérébam bii di Touba fii jumaa ji nekk tey ak béréb yi mu jaar nga xam ne mag ñi daan nañ ko topp sax di ko sedd di ko wër di toll ci fukk ak bu àll bi di xool sëñ bi ba xam fan la nekk ndax àll bi mu dugg waaye àll bi ngir bu mag ñi ko mën a xam. waye fi juma ji nek tay nga xamne mbarum mbaarum la fi defo def fi ab dor dor baba sikar lañ dan def gis nga bo gisee sikros Baay fall si Cheikh ibrahim Fall waxtu wi mi ñew baba seigne touba mi ngi terbiya mag ñi ci dikar ndax tawalifa gut baba talifa gut xaside yi nga xamne dafa jëm ci mathu yeeg salatu yi baba sikar la def bu jëme ci jàkka ji dañuy and ak mom di sikar bam aksi ñu toog mu def ay nawafilam bu ñuy julli ñu ànd bu jullee ba noppi dellu siwaat ñu ànd ak moom bu ñëwee benn mu ne leen jekki leen wala mu bàyyi leen lu wéyal di sikkar <laughs> loola leen mayoon ñu dem ba mboolem kiiraay yi doxoon seen digganteeg sew-sew yëpp dañ ñu mën di jàkkaarloog mboolem secret yi di jàkkaarloog mboolem pays yi nga xam ne doomu aadama doxoon yegg fa sax jafe woon na ñu ngi ko doon amee ci sikkar bu dakal mm-hmm. xayru taamili muridi saaliki mm-hmm. dawaamu dikri dil jalali maliki Hmm. sëñ Tuubaa nee na murit bi nam ma jëm ci yàlla ñam bi gën ci moom élément bi gën ci moom di ko dundee mooy saxoo tudd borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax ñoom ñu wéyaloon ca saxoo sikar sooseen di xiif di mar di xëy suba ba ngoon nga bu pepp wala kolkolub cere la ñuy am ak seen yitte ju rëy ya ak doxinu mag woowee ñu doon dox moom mi leen di tàggatit te di leen tàggat ci himma mu yitte ju kawe waxtu wu nekk mu di leen gën a joxañ ak jëme ci boromam ci njaxlaf ga ci yitte du kawe ja ci doxin wa te du may kenn benn occasion bu jàll nga xam ne lu ñëw rek mu laaj la ca noo ca doxe hmm. nga xam ne loolu moo indi woon léegi-léegi mu ne nit ñaati baat nga fi wax bi nga xëy ak léegi nga ne nit na ma de fay naa ko waaye ana waa kër gi mu ne bëriwut waaye bu léegi na gën a néew ngir won la yàkkamte gi mu yàkkamti ak xam gi mu xam fa mu jëm na mu koy doxe foofu mu nekk dafa tërbiye mag ñi di leen fi tàggat nga xam ne fii jumaa ji nekk tey dóor dóorum ngee a fi nekkoon dañuy wax ne amoon na juróom-ñetti kees kees bu njëkk gi rek moo amutoon ab néeg waaye kees yëpp amoon na ab néeg fii tey Cheikh Mahamadou fii jumaa fii sëñ bi nekk tey Cheikh Mahamadou Lamine Baara moom Xaadimu Rasuul feeñe fi feeñe fi jamono muy baagante nag diggante daarul xuduus diggante daarul rahman muy daaru naar kër sëñ Chouaïbou daarul minan di yendu fii léegi-léegi mu ñëw fanaan si fii di baagante di tab def nag doggu tawaalifam yi nga xam ne mooy tàmbali xaside yi nga xam ne lu mel ni taiya رائية ميمية نونية من اللي مي قلبي له في أعتاب الجسم تكرار أكمل سليمان بسرف عن المسيات القلب منية في اليوم قد سلم يو يب nga xam ne da koy da koy def ak xataaba xal bi yàlla allahu sallama ni xasida yooyu mu tàmbali di ko taalif di taalif yeneen yeneen yeneen am ndaax yi nga xam ne doxin bi di gën di gaaw jëm ci jëm ci boroomam nit ñi di ko dégg waxtu nekk di bàyyi ko fu nekk di ñëw waaye bu ñëwee lu ñuy wax la sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jëm mooy waxoon rek haza ziyaratuna يا روضة الخطباء يا قدوة العلماء يا ملجأ البصر خيرايا فوز وردوان وتكريمة وعافية الدارين يا وزير لي رك ما عندي وون موي غيرمول يالا لو صدق كو نيو رك عندي لول موم تاخاج ام فمو جيب دار الخدوس دار الرحمن موي كير سيرن شاهيمو دار الملان كير سيرن بشيرو بلب يوي نيك بلب يو خامني دا سي دا سي باغا خامني بن بلب بو سي نيك نياتا ام داخ ñaata talif dafa talif ñu sul ko fa yo xamne lu ci nek ken xamul dayoom ci digeenté mak tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam ken xamul dayoom ci digeenté mak julli ci yonnati bi alayhi salatu wasallam ndax nim rawé ñi tag ñi tag yonnati bi sëñ touba nim leen rawé lolu du sëñ bi mo wax ne ma leen raw wax na ko cay mbindam dun ay talibé ma tok naan sëñ bé raw way sëñ bi neena yonnati bé ko wax ne ya ci raw ta lolu defena jang jàngkat yi damay wax ne lima jaxal fi ne tay ko ci tuddoon yusuf ibne ismaeil an-Nabahaani ñoom xam nañ yusuf ibn ismail al nabahani ndax moo taalif jaami karamatul awliya ñoom d'accord nañ mbiram te jaami karamatul awliya dañ koy jàng ci adduna bi yëpp ñu dajale ci dajale ci mboolem karamay awliya yi nabahani moom ma nga nekkoon liban ku mënoon a tagg yonent bi alayhi salatu wasalaam la dañuy wax ne moom egg na ci sax bu sëppee xalimaam yonent bi jox ko loxo sallallahu alayhi wasallam te jamonoon ci wut ak moom sëñ Tuubaa la bokkal jamono waaye gisante wuñ ci zahir waaye nee na am na bis dafay dugg xalwa di laaj boroomam na ko ndax am na ku tagg rasulullahi lu tolli li ma ko tagg nee na yonent bi ne moo ne ku ñu wax Ahmadou Bamba kenn jutul asakaam ci tàgg ma hmm. kenn jutul asakaam ci tàgg ma te Nabaxaani moom i wax na loo xam ne c'est pourquoi bu ñu waxee dara ci sëñ rek ñu ne ñii dañu nekk daana ko wala ñu nangam mais moom moomu gisul sëñ Touba ci zahir te dem na ba wax ne ku rasulullahi raw Ahmadou Bamba raw la pert ga hmm. nga xam ne loolu wax ju wax ju wax ju من مولير لما تعمل ايش هو نجاري معلوم لله فضلا لا يمن فضل غير ممنون هو القديم الذي لولا ما سجدت على الجباه ولم تقرا به النون من فاته محمد المختار من مدر فاته خالد المختار مغبون اسكي كن كن كن داني لونغو نيوني لولو ني واخ مل سيغ توبا سيغ مولاي بوسو واخ ني بودي تاغ يونتيب غيت اذا استرغ العباد كان امامهم وفي مت خيل الخلق قيد الأوابدي laqad faaxa kullan fi salati ala nabiyu fiha bada taqdimuhu bil mashahidi bu dee jiitu tagg rasulaay moo ci raw bu dee jaamu yàlla moo ci raw mu dafa am daax yu toll noonu bi ñëwee ba ci atum bayses di mille trois cent douze mu gañaa def engagement boo xam ne xam nga da ngay dégg léegi ñu ne diw gor nga mais sëñ Tuubaa mooy gor lu ko dal goree ku ko yóbbe ndeysaan jërëjëf wallaay jërëjëf sëñ Gana jërëjëf moom murid la ànd na maak moom dem Makka waaye mënta wax ci sëriñ Tubaa ñaari bàtt jooyut waaye loolu la ko sëriñ bi fay àdduna bépp sopp ndax sëriñ bi moom ñemewul bor dafa am fay saa boo ko lebalee ker guddi la lay fay foo jot xalum kon sëñ Gana yaa ngi Touba Touba googi la sëriñ bi defee lu am solo loo xam ne gone yi toll ci am jom dañ ko war a déglu ndax seigne touba waxtane ko day may nit jom xam nga seigne touba dem na ci geej gi ba delu ci amul jurom fukki al iradatu qawiyya dem na ci geej gi ba del ci amul jurom fukki at keroog bi muy gisanteeg yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci daru ñeen fukki atam manke na ñetti weer mu ne ko bis niki tay man na la ko def la ko mu sama beut jël na lool kuy wut xaliss bañ na le milliard gi nga ne man bëgguma milliard ñu ne la amee ah, sëñ bi loo bëgg nag nga ne machine bii defar milliard tañ garanté ko ci adduna bépp xaalis bu ma defar mu walaa bal ci adduna bépp machine bi laa bëgg te machine bu dul paa nit laa bëgg di man a defar xaalis fu mu mën a toll ba dootu ma ñàkk xaalis yonent bi ne ko négal ma laaj ko sa borom daal ne ko sa borom nee na ñaar téeméeri nattu la ak juróom-ñetti fukki nattu ak juróom mooy ay suratu bàqara mu ne ko man dey ruu gi sàkkuma ko bay xam lu mu attan ak lu mu attanul waaye neel sama boroom lu ma mën a teg bu ko ruggi attanee sama jom dékk na ko kookoy gor kookoy géer masta weddi masta miim ni ko sëriñ bi waxe nga xam ne tukki boobu nag lay bëgg a dugg di ko waajal pour dem mbàkki baar yi te tukki bi sëriñ bi daf koo fonk ba tuddee na ko alqurba mooy tumranki fonk tukki bi ba tuddee ko li ñuy tuddee maanaam tuddee na ko it xëy ba mooy li ñuy tuddee fàllu wax na ko wa sababu xaybati albahina sëñ Basiru nag dafa wax ne euh, tukki bi dafa am ñaar yu ci nekk zababu baatin ak zababu zaahir mu ne dafa mel ne baabul baatinuhu fihi rahma waaye nag wa zaahiruhu min qibalihi alhazab dafa mel ne biir bi dafa mel ne maanaam baatinu tukki bi lépp lépp yërmale la waaye saayir si nga xam ne dafay nuru ay nattu ak ay nangam Euh, loolu lépp xéewal la ci ñun murid yi taxul si Ahmadou Bamba di dem kon sëriñ bi jóge na Touba sanc ko woolu fi sëñ ma Masamba Diop Samb buubu jàmmoo ko woy ndax rëbb du tiit rëbb gaskatub teen akub rëbb foo ko fekk day am xam-xam ne buubu ja bu doon tiit bi mu gisee sëñ Touba ci àll boobu mu sol xaftaanam yu bari yooyu takk ndiggam takk kaala gi ci ndiggam li maanaam te tene yi ak bukki yi maanaam rab yi àll yépp ngi woon ci biir dëkk bi booba moom muy ab rëbb xam fi gaynde yi jaar xam fi bukki yi jaar ba mën a teggi te sëñ Tuubaa moom du leen daw foofu la njaay àll ji muy gaynde njaay àll gi mooy mooy mooy mbaam àll gaynde gi di ko dàq ba mu ñëw làqutu ci ginnaaw sëñ tubaa moo tax fii dañ fi rawee kuy làq mbaam àll doo bàyyi nit sëñ Tuubaa ku ànd ak moom mucc nga àdduna ak àllaaxira sëñ bu Sara Samb ñu ngi bëgg a dugg ci tukki bi yaa ngi doon toll jeewal jeewal googu nga xam ne fa la waxee ne fala la iblis njëkk a ñëwee songu ma ngir gàllankooral ma sama liggéey waaye yonent bi sallallahu alayhi wa ak ahlu badrin gi ma àndaloon dox sama digganteeg moom mu wax ne nag bi may dem ci géej gi jaamu yàlla ñëwuma ci kenn ñëwuma ci malaykatul muxarab ñëwuma ci nabiyul mursal ndax dafa wax dafa am lu ñu tuddee kamaalul islaam ak kamaalul imaan ak kamaalul ihsaan nee na loolu rek mu yóbbu woon ci géej gi ñu ne ko kamalul islam mooy lan mu ne al mahrifa ñu ne ko kamalul iman mooy lan mu ne al yaqin ñu ne ko kamalul ihsan mooy lan mooy al wusul ila allah moo tax lillahi qad wasaltu inda galwaa ba mu demee galwaa la àgg ci yàlla rëkk ba sëñ tubaa ni mu doon jaamoo yàlla ba àgg ci yàlla rëkk ku ci dolli virgule doo dem sëñ busalaa yaa ngi jëmoon jeewal dañ lay topp ak yow nga dugg ak ñun ak jeewal dem ak ñun dara ndar tàbbi ñun ci géej gi ah, jërëjëf euh, sëñ Ibrahim jërëjëf sëriñ Gànna jërëjëf sëriñ Abdoulahi Diop Bichri euh, dafa am ku ma sa ñëw ci Seex Ibra nuyoo làmb ji baam génne la ci nekk jox ko ko faal ba yàgg mu daldi ni ko fas wi ma indi woon day joxe naa ko fi dama la koo jox àddiya Seex ba ne ko waa ah, kay ah, def nga lu baax doom def nga lu baax mu jekk ba ci yàgg mu ne ko doom jii ma àndal jébbal naa la ko àdduna ak àllaaxira Seex Ibra ne ko hey ah jébbale sa doom de mooy jébbale sa bopp rek mu daal di yeeyu jooy Seex Ibra ne ko hey ah fenatoo nag <laughs> fenatoo nag fenatoo Cheikh Ibra Fall daana wax ni addoom bayliku leen murit day bayliku bayliku di leen tax a daanu ku bayliku itam doo daanu mooy li nga dégg sëñ bi wax ni min sihaabin tabattalu li wakilin qad hadaahum bi nuuri xaqil yaqiini sëñ bi bi mu xëyee Mbàkke Baari tàggoog bokkam yooyu daldi war yendoo dox sëriñ bi nee na wa saadafa xuróojahu xuróoja qaa'idi jeyshi min nahwi Louga fa talaqiya inda jeewal xasiyata zalika al yowm waxtu wi nga xam ne ci la sëñ ware waree Mbàkke Baari jëm Ndar ci la commandant Leclerc bi ànd ak soldats yi ak espèces yi waree Louga jëm si Mbàkke Baari di jàpp si borom Tuubaa dañoo daje waaye jeewal taxuloon sëñ bee jóg tubaab yi yéen doo dox jëm si Mbàkke Baari sëñ bi doo dox jëm jolof mu ni fata laq yaa inde jeewal dañoo daje jeewal hacheta zalika yow ma ca ngoon ak bis boobee di gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci yoru safar jeewal mooy maxalu liqaa yi sëriñ tubaa nee bi ma taxawee ci tund jeewal taxaw ci tund wi tiim xur wi commandant bi ak espace yi taxaw ci wala tund tiim xur wi sunu ñaari maari jeey jàkkaarloo kee yor ndigalal borom ndar ki yor ndigalal muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wax ni damaa nangoo ci làmmiñu sëriñ Moodu Kan Baay Murtala mu ni keroog bi sëñ Tuubaa jóge Mbàkke Baari bi mag ñi ku ne wax ku ne wax Seex Ibra Faal la mel ni kuy matu mi ngi wànguraay di muug muugi rek ku ne sëñ bi laaj la pexeem ak loo xalaat nee na ba yàgg sëñ Tuubaa ni ko Ibra Faal ana yow loo xalaat nee na sëñ Seex Ibra Faal dafa yenu ay loxoom di teen ca kaw ba yàgg mu ko ah sëñ Bamba bett nga ma sëñ Bamba bett nga ma sëñ Bamba damaa defoon ni bi nga may woo ci liggéey bii bi ngay wootee di ma fal ci nguurug yàlla gi ba ma yëg ko sa bisub taw xew a tax xanaa moo sëriñ bi doo am sa bis bi yenn ko ci sa donkal dem moom bàyyi ma sëñ Bàmba bàyyi ma ma naan géej gi gaal gii du am fu mu aw yóbbu la mun ko defal gaal gi bàyyi ko tubaab yi bàyyi leen yàlla bindee te bàyyi géej gi ni ko yàlla bindee te bàyyi maag tubaab yi sëñ bi dox ne wutin jeewal ak yi ca xew yépp ba yegg jeewal jàkkaarlook ñoom xam nga sëriñ tubaa nag stratège la nun ñii suñ bàyyi demoon 14 18 noo xam li sëñ Touba def barke borom Touba bi sëñ bi taxawee ci wéetund tiim xuur wi lëkkale rek taxaw ci wéetund tiim xur wi sëñ ñaar maay jëy jàkkaarloo tubaab bi dañoo wax ni la force peut vaincre la vérité la vérité peut vaincre la force mais l'union de la force et de la vérité est invincible doole dana mën dëkk dëgg it dana mën doole waaye sëñ Touba day doole ju ànd dëkk dëgg du manant moo tax kanam rek la jëm sëñ Touba nag dafa def foofu stratégie de guerre ndax bi mu jàkkaarloog ñoom te moom amul ay gànnaay mi ngi seen seen gànnaay mel ni suñu su foqi su focc dafa leen jëkk ci biir xur wi sëñ tubaab daf leen jëkk dafa jëkk tubaab yi dafa jëkk a wàcc ci biir xur wi bi mu wàccee ci biir xur wi rek daal di sànni fas wi dal di jublu xibla tàmbalee julli léegi tubaab yi daal di wax ni le Cheikh s'est constitué prisonnier ministre bi léegi def na istislam joxe na boppam fekk stratégie la ñoom attaque armée la jëmoon fa moom la doon jëli. di ko jàppi far dajeeg moom en cours de route léegi gannaaw nag def na istislaam luy nuru istislaam ci ci seen kanam wàcc na la waroon àndul ay ngànnaay yorul benn euh, luy arme buy waree day riposter wala day bañ tubaab yi itam daal di jëf luy nuru ak ñeewant ak néggandiku daal di koy gaw gaw moo ñu encercler ko waaye sëñ tubaa ngi ci der bi rek di julli waxtu la woo xam ne bii عشيتنا مان غورلا جوليغو تاكسان واي مو جولي رك دينا فيله دينا فيله با تاكسان جوت مو جولي توك فا دي تودو يالا تورو يالا نخ يا ولي لا سيغ توبا واخني موم لا يور دينغ موني ايسمني الله عند جاولي ابليس از ناديته بيا ولي مو يور تورو يالا ديكو سكر ba yàgg tuba bi diko ko rek nu dem mi ngi guddi takal nu dem mi ngi guddi mu ko duma dem fi lay fanan ñu ko yow dañ la doon jappi far ak yow señ bi ni len damay fanan te señ bi du wax di ca delu légui biñu xamé ni señ bi légui dogu da ci mel ku ñëk ci day day

dara tii mu ko du jaww kii bi rek la belle étoile loolu mu wax ne eh, loolu mu wax ca xuqa ni eh, yan suuna lay daaw a soxdaa fi qiyaamihumu bi askaarin wa ayaati gongi ko buróoj yi rek ak bidiw yi di wétli ko boroomam fanaanee xool fanaanee jàmm yàlla tubaab bi di luur ak a say bani nemm ba fajar ca fajar ba mu jullee fajar ba doon fala sax ba jullee fa fay nange ca dimanche ca ñeenti rakk yor yor fa la ko julé ba tak ba jëkk door wax ni ndax ñi non duma fanan, dañuy dem am duñu dem dongo ya leen yé di leen wéx ñu war nga war gu bon ci le commandant bi defee rapport wax ni c'est au moment où nous sommes opposés à son désir que nous sommes frappés par une sorte d'éclair et nous sommes restés évanouis jusqu'au matin jamono yeen dogo ci soq ci mom sawara woowee waxtu nak ci la ñu mel ni ak dënnoo dal ci suñu kaw ñu daanu àndatu nag suñu sago di xëm ba ca fajar sëñ tubaa war ba mu waree loolu ñu wax daa dans la boue sëñ tubaa def na ko tubaab keroog sëñ bi dafa daal rek daal di jaar njokk siyaare maam maxtaar nubbe jóge fa yendu ji kokki fa la yendu keroog bisub dimanche ba fa la yendu ba timis si bëgg a jot mu xiin penk ba sow tàmbali la ndox xam nga seeti tout mois de wax set la xiin taw xiinul taw ci bi bi ñu bëgg a julli timis mu xiin penku ba sow tàmbalee dal ndox ci la sëñ Tuubaa génn ànd ak ñoom ñuy tawte mu fanaani Louga ba mu dikkee Louga bokki njàmbur yëpp ak seexam yu baax yooyu yëpp ak murid xam yëpp ak jullit yëpp topp ko ca suba ak altine ga la taxaw ca gaaru Louga ba gaar boobu nga xam ni mu ngi damu ci kaar gaar yi ndax fa la sëñ Touba wàcce fasam wa nag ñu duggal ko saxaar saxaar goo xam ne gii locomotive la muy saxaaru vapeur saxaar gu ñu xam ak mat mur yi bari nañ lool seexi njaabur yi bari nañ lool sëñ Madou Gueye jëmmooy sëñ Baara Faati Mbooj sëñ Mat Lamine Gueye ñoom sëñ ma Amar sàmm ñoom bokki njaabur yooyu yëpp dagg fas yéene fu sëñ tubaat teg tànkam ñu teg fa tànkam waaye tubaab bi pour bañ désordre dañu ni leen beru leen ci saxaar gi dugg leen ci yeneen locomotive yeneen wago yi waaye sëñ bi képp ñu ber ko ci yenn wago bi tardi su lu mu déparé saxaar gi jëm ndar dañoo décroché wago yi xam nga saxaar bopp bi rek ay daw wago yi ci des yëpp dañuy watu oto bu ñuy poussé yam oto bu ñuy remorqué yam ñu décroché wago yi ci des yëpp saxaar ga daal di déqi <coughs> locomotive ba daal di déqi bopp saxaar gi déqi ca la sëñ Tubaa nekk di liit saxaar saa ngay jolli waaye bi saxaar si saxaar gi saxaar demee ba ñee gisatuñ ko ñee ngay yuuxu daw ñee ngay topp saxaar ga ñee fas seen i mbubb ñee lonkale seen i baaraam daw wuti ndar ci biir saxaar googu ci la sëñ Tuubaa daal di yëkkati loxoom ca la way xës rek ala inna ni usni ala xayri munami inna ni ostu bil ilahi l muini min jamihi l aza wa kulli lahini saarifan himmati li rabbi taala raajiyan sax yohu bi man maini ماسكا بالكتاب مسك درير بيد القائد البصير المعين دنجا كبير خسر جوج ووحسي ورفعتي وكنوزي وبه أتجن قيادة المحرم حروني سن بي بكبير خسر جوج تلا بيرسونيفي الإسلام بودي جمنان ربي وفقك أسري ورهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني وخل دمي بقم جا ربي وفقك رحنا الإسلامي booba الاسلام لا نيو جاب booba sëñ توبا moo tax daana wax ni tubaab yi jotewu maak ñoom dara seen kilifa gii di iblis moom laa jam xëejub dëgg ci xol mu yuuxu ay bokkam wallu ma nga naan rab bi waf ko asri yi yàlla jotal sama njafeel war rëx nii te jot sama tayle lislaam la ñu tayle booba fa inni bi sunoo bi mu kabbalun fi sujuuni rabbi inni abdun kasirul maasi fal maasi haa i wa baa i wa siini rabbi nii rabbi raqi nii rumashaani zakki lii nuna qabla faa in wa siini waaye déglu listajib daawati bi maa faaqa zanni wa bi maa faaqa rabbi kula sunooni moo tax histoire yoonu géej gi léeg-léeg nga dégg ku naan weesu nañu sëñ Tuubaa demoon ci géej gi bu nu ko weesoo fu nu jëm lii rek la def lu kenn deful dajeeg tubaab yi rek semmal leen dem dellu si di kenn ndamal sëñ Tuubaa lii mu am ci tubaab yi bu doon football dama naan trois 0 la score bi trois 0 la day ndamal ku ñuul ci ku weex ci moom la jëkke ci la mujje ñuul kukk walay sa yuuju bu sawaadel gis mi safaaxatal fataawa su al mi nekk ki nga xam ni il a la civilisation de l'homme noir boroom dër bu ñuul te sëñ Tuubaa waxoon na leen ko ca Masaalik ca ba ñu boo doon yóg doon borom dër bu ñuul ay nit ñu weex jàpp ko mu doon kenn ci mbooloo bi muy dem di kenn képp ñoom ñu di aw mbooloo di déeyoo séeri pexe di nas ay pexe am ci moom sañ-sañ suñu borom jox leen ci moom sulta lu leen neex jëfandikoo ko ci moom te du daw du raf du miim du weddi waaye muy ndamal jullit bi ci yéefar bi ñoom ñëpp ñu di na muy wax ak ñoom te ànd ak li muy doon doon seenum noon ñoom ñoo ko bañ waaye moom leen rek la leen bañee muy weddi gi ñu wàdd yàlla weddi rasulullahi te sëñ tubaa sax ngi leen di laa biire yaa jumlatan qad sallasu bi dalaalihim man lam yakun waladun du aw waalidu di leen di leen waar di leen wan lislaam ca na lislaam mel ànd naa ñoom juróom-ñetti at yu manqué ci weer mus ta jullee menn mbubb menn mbubb musu koo jullee ñaari farata musu koo jullee menn póot li yàlla digle lépp moo ci man moom dong nga ko man sax xusu sinatakum inda kulli masjidin mus ta jullee menn mbubb ñaari farata mus ta jullee menn njàpp ñaari farata mus ta julli mukk te naafilawul mus ta julli mukk te noddul julli mi nga xam ne mooy synthèse islam dans sa globalité mooy lépp l'islam julli momu la defoon nga naayam di leen ko timbax fu tollu toll muy julli ci sen bureau yi di julli ci sen kanisa yi di julli ci sen caserne yi di julli ci sen camp yi di julli ci sen cellules yi di tuddu yalla ci kaw ñu di ko dégg sëñ Tuubaa gaynde la wet musuko nak musuko tere xeex mus sa soppi ko barab musuko soppi wet musuko soppi situation musuko soppi il a toujours été égal à lui-même foko ba sa fek rek Ahmadou Bamba nga fek motax daara wax ni bi mu ñibbisee dafa wax ni cheikh seigne gaa ko Mbàkke mu ko ah yàgg ci àll bi way bañuma kenn ko top samay tànk musuma saalit fenn seigne Tuubaa ko cheikh seex mu ko Mbàkke mu ko yàgg ci àll bi way bañuma kenn ko top samay tànk musuma saalit fenn ban sahar gi yeggee ndar mu baqiyatu sahru safar wa sahru rabiul awal ila yawmayni may fa la dess ci wéru safar wa ak wéru gàmma wa bam dess bam tollu ci xëy loolu la am ndar ci dir bobu ci lañ taxawal conseil privé seigne touba neena moo tax màggalu ren jii dafa nur lool yoonu géej ga barki sëñ Tuubaa màggalu ren jii dafa nuur lool yoonu géej ga ren màggalu bu saarix la ren màggalu sëñ Tuubaa la seet yëpp lañu ñu màgg la ñu annulé màggal yëpp la ñu annulé bis yëpp lañu ñu annulé màggal gi rek lañu ñu màggal ren aj màkk sax dañ ko annulé ndax ren mooy màggalu sëñ Tuubaa ren at mu metti la mu tiis la waaye atum gor ñi la moo tax la sëñ tubaa defoon rek la murid saadix yi defaat ren ñëpp bañ dawee wuti dee ba dee dogale leen kenn ku ne dañ bu ma ci naree dee dëpp sëñ tubaa ni bu ma ko dee dee xañ doo ko ñàkk waaye noonu lu nu bu dee dee dox su diggante ak sëñ tubaa du nu taxaw a ñu ko nun corona sunu mbokka feebar bii sunu mbokka sunu mbokkum taalibee danoo bëgg nu bëgg ko du fi rey dara du fi def dara du fi def jenn lor dañuy màggal rek ànd ak moom muy dogal bu yàlla dogal nu màggal te bàyyi suñu bopp ak yàlla ndax yàlla du lii rek la am du épidémie bii rek la am yàllaa ngeeg yeneen yoo xam ne yii bu ñu bàyyi woon ak yooya kon kon deegu mitti la wala deegu li yàlla yor te xamunu ko te mu nëbbuñu ko corona ci gën a tuuti waaye la sëñ tubaa defoon rek la murid yi def ren muy bu ma dee bu ma ci naree dee dëpp la ñëpp wax sëñ tubaa yi bu ma ko dee dee xañ du ko nekk waaye noonu corona dox na suñu de sëñ tubaa jërëjëf al alhaji Busra Sambu tegal fofu sa loxo yan bañu ñu khutba ya ak Abdalia, te nuñ ko moko ko fab raw gaña da ngeñ di way ta tawatut balaa ya surtout laxwaani la am ci laaya serigne touba lu mbir reey reey reey reey reey la koy faf doli ak gem du yokki du daw di mbër mu farak boroomam yaa jëm dar nak fofé lañ ko bolé gaynde suñu mam serigne Modou Xari suñu mam serigne Modou kharifa dafa nettali na Serigne tubaab moo ko wax ne ko biñ may boole ak gaynde gi dañoo ubbi fi ñuy dugal gaynde gi wax ma ne ma demal boole ma ki may yóbbu waaye ki nga xam ne mu ngi ci kaw étage bi yor fetal dafa wax sëriñ bi ne ko maa ngi lay souhaité deegu neex ndax yow gayndee la nar a lekk maa ngi lay souhaité nga am deegu kii daal deegoo xam ne deew gaynde moo lay lekk sëriñ bi nee na ma waax wuti fi gaynde gi nekk bi ma waaxoo ak doole wuti fi gaynde gi nekk ne yonent bi ne jëpp ci sama kanam ne ma bàyyi ma ma njëkk laa dugg bi ko yonent bi ne bàyyil ma njëkk laa dugg sëñ Modou xaree nettali ne sëñ Tubaa ko ko nettali bi ko yonent bi ne bàyyil ma njëkk laa dugg sëñ Tubaa ne taxaw ñu ne ko ah yow danga doon jaay fit rek di waaxu demal ndekete booba xorma lay jox yonent bi ngir wàcc gu mu wàcc ne ko bàyyil ma njëkk laa dugg ci taax mi moo jeex na wallaay ndeysaan bi am fi xadaawa tëri fa xër bu jaayu fi ahli Sambu di sunu doyen di sunu di sunu mag ci li nuy def ba nopi di ku ko man di ko xamne ñun ñi di waxtaan ñep ñun sunu idole nga sunu reference nga dañuy xol ci yow dañuy roy ci yow ci sa labir sa bax ak sa mana wacc sa bop wax deug yalla ñu ngi lay jéggulu sax toogaay bu yagg bi kon Cheikh abdullah Diop bisri, lu ngi duggu gànnaar waaw gànnaar ga nga xam ne ku fa mas a dem boo dee góor def nañ la jàmm ngay rootal jigéen ñeek sar xolle gànnaar ga nga xam ne ku fa mas a dem doon nga seen taalibe gànnaar ga nga xam ne foofee la Abdullah ibn Alawi ne gànnaar ga nga xam ne Abdullah ibn Asan ma nga fa gànnaar ga nga xam ne Cheikh Sidi yaa nga fa gànnaar ga nga xam ne maanaam Cheikh Saadu Abe nga fa gànnaar ga nga xam ne mbooleem sorofaw yépp nga fa te it wa badrun muniirun xaaba fil xarbi zumala amil xarbi zamsan rifhatan wantisara Cheikh Sadou Abi nee na kii nu jàpp ci saw bi muy dem ci géej ci penku muy dem ci géej bi muy dem weeru fukki guddi ak juróom la waaye bu dellu suwee jant bu weesaar way doon Cheikh Abdoulaye Diop Bichri sëñ Tuba ak gànnaar jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ñu ko tudd ñëpp naa la wax li ñu wax sëñ Tuba jërëjëf ci kàddu yu rafet yooyu gànnaar sëriñ bi dafa wax ni ñetti géej a ngi man ahmadu dang ci lab man rek ma ci labul ñu ne ko geej bu njëkk bi ban la mbacké mu ni geej gu njëkk gi moy pexem nasaran bi tubab yi tubab kenn mësta genn ci say mbokk am ak ñom 24 heures waxuma wër bis ta tata ñu la mësta am ci histoire tubab ku mës a tàggoog say mbokk and ak ñom nu jëmele ci seeni pexé fa nga mujjee mooy fii mooy tomboom kaay leen ngeen ziyaare ko seen sëriñ bi ngeen yaakaaroon sëñ Tuubaa wax ni man rek maa labul ci géej googu te sànq nañ ñu bari ñoo xam ne histoire relaté na ko ñu bari faatu nañu ñàkk seen bakkan ci sax jamono bu yàggul loo xam ne ginnaaw sëriñ Tuubaa la ñi fi masa bañ ci ku ñuul sax dañ leen a boom Patrice Lumumba njiit lu mag la woon dañ koo boom ñoom tubaab bi Sylvanus Olympio ci Togo dañ koo boom ñoom tubaab bi Barthélemy Boganda ci Centrafrique dañ koo boom ñoom tubaab bi Ahmadou Ahidjo ci Niger dañ koo boom Diori Amani ci Niger Ahmadou Ahidjo ci Cameroun dañ koo boom dañoo boom Malcolm X tey tuddee nañ ko yoon wu rëy ci biir Amérique Martin Luther King dañ koo rey ci Memphis te nit ku ñuul la doon xeexal moo ne woon gént naa jamono ngi ñëw dinañu àtte nit ku ñuul. ci comportement ak jikkoom bañ koo àtte ci ñuulaayu deram I have a dream that one day my four little children will live in a nation where there will not be judged by the color of their skin but by the content of their character bañ nanu ba tàyyi ñu rey leen Léopold Sédar Senghor jiite na réew mi dafa àndoon nag ku ñuy wax Aimé Césaire ak Léon Gontran Damas ñu taxawal la négritude ngir xeexal nit ko ñuul taxul ñu am réussit wala Soyinka bu Nigéria waxoon na leen ko كين مستجوب خير أم فيكتوار كي نيت كم كيم احمد بامبا امي خادم رسول موتاخ ستم بي سيغ عبد الرحمن مباكي مو عبد القدوس مبروم دار المعتي بو ديلو تيا مارشيام بام بابا واي دا فا واخني بدايه الخير منه قل نهايته اليه من ربه وللمنيبين بدايه الفضل منه قل نهايته اليه من فضله حب المطيعين حب الخديم على السودان مفترض إذ حرر السودة من رق المديلين قد حرر السودة من رق فقادهم لله بالله بالمخدوم هدينا قد أنقذ السودة من جهل ومن كسل بالعلم والكتح فانقاذوا له حينا كي غاي ويكم دون من لله من قادم قد أما قدمته كل البلاد وكل الخلق والدين سيدي عبد الرحمن نينا شيخ أحمد بامبا خادم رسول fi nga xam ni yiiw fa la yem fa la sëñ Tuubaa tàmbale xamul début yiw ak fin wu dafa ñëw léppam yiw nga ngëneel fa mu tàmbaleek fa mu yem ñoo yem ci sëriñ Tuubaa diggam ak boroomam nin koo gisee ba noppi koo gis léppam la jox yàlla ci ngëneelam yàlla jox ko ngëneelam yépp sëñ Abdourahman nee na Cheikhul Khadim nu ni ko waaw mu ni jëmm la joo xam ni kon sopp ko dafa war ci ñépp waaye rawatina ci deru nit ku ñuul ndax ñun dañoo gëmoon ni nit ku ñuul daa war a toppaate rek warta warta taxawal dara warta siggi am sax philosophe bu ñi wax euh, Hegel doomu Allemagne la mo njëkk wax ni philosophie di xalaat bu kawé bobu ñi wax philosophe mënuma nangul deru nit ku ñuul ndax seen xel daa bokku ñu ci langue gi duñu xalaat len fenn la philosophie c'est la haute expression de la pensée alors que les africains ne pensent pas je ne pourrai jamais admettre une philosophie africaine gis nga ni ñu def ak Bilal mo daan noddal yonent bi alayhi salaatu waaye dañ doon saboté siinu mojama mënu ko wax bu baax ba yanant bi ni sinam ak sen sina yam ci yalla ñaata lañu lor ci nit ñu ñuul ñi japp dañu wara topé kene toppe warta taxawal dara serigne touba fekk baax fi togge fi añam jangé fi yaru fi génnul ci digënté nijaayam serigne Bousso bi fi fekk baax fi ci Bawol liggéey lo xamni bimu démé gannaar nga lakku arab ñu wëlbuti ko yaanu raw ci arab sëriñ Tuuba waruñoo xalaat sax bàkkaar bi gën a rëy mooy xalaat ni muy woye wala xalaat ni muy tagge wala xalaat cofeelam ci yenantu bi di ko tëkkaleeg benn mbindeef bàkkaar la ñim moom làmmeñu arab ca gànnaar ñoo wëlbati ku tagg sëñ Tuuba ni ko yaanu raw ci làmmeñu arab dégg nga wax bi ku ñuy wax Muhammadul Fadil ibnu Ahmadu Dalili al Yanqubi doomu gànnaar la bi muy wax ci sëriñ Tuuba dafa wax ni yow Cheikh Ahmadou Bamba mu ni ko waaw mu ni ko annahu wallugatu ilmul arabi waljuudu wa saqaa'u inda alkurabi siimatahum fa jaahuhum zu rutabi ahmadu bamba man ala bi rutabi ibnu habibillahi zu taaddubi fa fa fa salabal jamia ayya salabi minhum fa saaru maahu kalqusubi الى عسيره النبي الانجم نيكو احمد بامبا يا اقا تقربي افا يحل لك افا يحل لك ظلم العربي باخذ النحو ام واخذ الادب واخذ جودهم بغير ودب ديغل كي ليم واخ سيرن توبا تي لامنيو عرب داف كو جوخون ني النحو غرامير عرب والجود اك تابه والنحو اك غرامير واللغه اك لانغ عرب بنيو واخي لغتو موي فوكابولير تي عرب tubaabay wax vocabulaire wala lexique arab luxa lay wax da ngay jàngi waat yépp xam ba ne lu muy firi ñu jaar ci programme arab faaw ñu leen ci muxtaarul adab jaara leen ci ibnu duweyd jaara leen ci daaliya ba keroog ñuy plafonné ci maqamatul xariiri door a xam làmmeñu arab xam-xam boobu di luxa naar bi nee na ñun arab yi kenn mu suñu see yëpp ndax ñoo ko moomoon di ci def lu nu neex di ci woy lu nu neex xam-xam bi ñuy wax naxwu muy atte yi tax nga xam xawaa idu naxwiya lu ne lu tax ñu def ko fii lii daa jasam wala buñ koy lexraabal lii dafa binaa wala maf'ulun bihi la wala ismul faay la wala maf'ul atte ya ca aju tubaab bi nee kii naar bi nee na ñun ñoo ko moomoon ñun ñoo moomoon grammaire arabe moomoon langue arabe waaye tabe dafa fekkoon baax ci arabe yi dañoo mënoon a tabe am na lu ñuy wax naarul xiraa jàngkat yi xam nañ léeg-léeg arabe su amee ay milliards buntu kërëm da ciy def benn lumière bu ñuy wax narul qira, moy sawaras bernde lañ ko tudde luñ ci djublu africain kay ñun ñi ño baxo ñun sénégalais surtout ku am milliard di nëbbatu waaye arab deug dañu roy ci yanant bi ku am milliard da ngay defar lampe sa buntu kër ngir wan gan yi dox bu ngeen accès sama kër accès leen wacc am nai milliard ma dimbali leen ñom kenn daawul tëju motax ñuy defar narul qira, kon motax ñu leen di tagge tabe am na ku bokk ci ñoom ku ñuy wax xaatimu taahi moo gënoon a tabi ci kaw suuf donte nekkul woon jullit terewul bu ñuy woy ko tabe faaw nu woy ko ci moom dégg nga sëñ Seex Gaynde Fatma ba muy woy maamam xaadima rasul dane ko fil joodi xaatimu naa fil fiqi maaliku naa wa fii fasaatihi yazri bi sahbaana sëriñ Tuubaa gàccal na ñooñu ci tabe moo tax naar bi ni ko tabe générosité ak mbaax dafa nekkoon sunu moomeel siimatahum waaye lu xew bi loolu amee bi nu moomee làmmeñu arab moom xam-xamu arab moom tabe dafa am lu xew ci ñun ñu ni ko lu xew mu ni fa jaahahum zóoruta bi dañoo am ku ñëw ci seen biir ëpp leen foofu daraja di Sëriñ Tuuba hmm. kuy kooku mu ni Ahmadou Bamba zóoruta bi ala ruta bi sax la wax Ahmadou Bamba mi gën a kawe ñépp daraja moo ñëw ci sunu biir bi mu ñëwee lu mu def kuy kooku mu ni najlu habibillaahi zoo ta addu bi mooy ka nga xam ni ka ko jur ka ko jur habibullah lañ koy woowee borom teggin lañu askanoo ci mbàkkeeg mbusoobe ñu ni kuy kooku mu ni bi mu ñëwee ci ñun fa salabal jamia ay ya sala bi danoo fekk ak yooyu ñu moomoon mu nangu ko nu mu ko neexee force le saisir lépp nangu ko ci ñun muy générosité di grammaire di vocabulaire di mbaax lépp la sëñ Tuubaa nangu ci ñun arab ko nampoon mu ni bi loolu amee fasaaru maahu kal xusu bi naar yëpp dañoo mujj di topp sëriñ Tuubaa xam ni moo leen jiitu ba mel ni kuy topp tiisu garab garab gi mbool mi ni muy toppe ci garab gi sax ci noonu la mujj di di noonu lañ mujj di ko toppe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu ne ilaa asiratu nabil anjabi ba mu des waa kër yarant bi ñoom rek la war maal bàyyi leen fi waaye ku dul moom jiitu na leen daal di wax nii nag yow Serigne Touba kon Ahmada Bamba maa ngi wax ak yow yaa aqaa taqarubi yow mi gën a jege ñépp yàlla afa yaxilu laka zulmul bi ndax dafa yell ci yow tooñ arab yi sëñ Touba laaj nu ma leen tooñee muy defar mu ni ko bi akhzi nahwihim ci <laughs> nangu gi nga nangu sunu làmmeñu arab grammaire bi ya ko mom bi akhzi nahwihim wa akhzi joodihim nangu gi nga nangu tam sunu tabe tabe bi ghairi wadabi ta te yàqoo dara ñaawaloo dara ta nangu lepp ñepp xamni ya jitt koku kenn la ci ñom am keneen ku ñuy wax muhammadu Hassan al Alawi mm-hmm. dañ ko laaj ku Cheikh Ahmadou Bamba gannar la ko ak serigne bi bokk na ci njëg seigne Touba ndek jox wirdi wi nga xamni sar sara la ko jotté fi mu njëkk a wàcc bi mi woy seigne Touba dafa laaj jam ñepp la laaj dani man doomu gannar la set la ci yanant bi ci hasan yoon la bok ñu ñu naw lañu hasan yoon ñepp leen respecté dañu sëtu ci yanant bi mu ni way li yek ci seigne Touba damay laajte laaj nak dafa am lu ñuy wax ah, listifhaamul tankiir yi dafa am mm-hmm. xam nga yeen saa nga laaj pour wéddi dara taw am yenn say nga laaj pour saxal dara léegi lu tubab di wax interrogation oratoire jankati yi xam nañ ko suma ma euh, monsieur Bouchra Samb ne portez-vous pas un boubou blanc pourtant je lui ai posé cette question en sachant qu'il porte un boubou blanc lu tax nga téye mbub mu wex mi sol ko xana solo mbub mu wex pourtant xamna ni lu wex la sol waye laajin bo bëgg waxtan la bobu laajin ci arab la laaje limi xam dañuy yeen ci am ñepp lay laaj ku am tontu tontu ألا يا عباد الله قوموا لتشهدوا ولا تكتموا ما تعلمون فتعتدوا سألتكم بالله من ذا رأيتم على الأرض مثل الشيخ يركع ويسجد فإن قلتم ما نعرف الدهر مثله فحولكم حق وإلا تفندوا شهدت بأن الشيخ أحمد لم يكن سواه كريم فوق الأرض يوجد ديغل كي لي ما واخ lii ñuy wax ci Sénégal di werante jaru ko ña gën a jege yàlla gën koo màndi xam ko ñoo ni sëriñ Touba yow amoo morom dani alaa yaa ibadallahi yéen jaamu yàlla yépp laay waxal waxul murit waxul xaadar waxul ku ñuul waxul ku xees kuy jaamu yàlla yàlla sàkk la ci laaj bi nga bokk alaa yaa ibadallahi ñu ni tekk mu ni xuumoo jug leen li tashadoo ngeen seeral li ma xam ci sëñ Touba ngeen seeral ndax xam ngeen ko ni ma ko xamee suumoo li tashhadu wala taktumu wala taktumu maa taalamuuna te bu leen nëbbu li ngeen xam ci jëmm ji bàyyi ko Sénégal bu ngeen nëbbee li ci moom rek fa taxta doo bu boobaa da ngeen di tooñ da ngeen di jeng mu ni saaltukumoo maa ngi leen di laaj billaay te jëmm yàlla rek tax man za raaytum kan ngeen gis kan ci mbindeef yi alal ardi ci kaw suuf mis la cheikh yi mu mel ni Serigne Touba moo xam koo xam ne yarkan wa yasjudu kuy rukkoo la wala kuy sujjóot ko mel ni kii ndax teg ngeen ci bët mu ne ñaari réponse a maanaam benn tontu bi mooy waaw gis nañu ko benn waay la bu dëkk Liban waaw gis nañ ko ca Arabie Saoudite waaw gis nañ ko ca Maroc waaw gis nañ ko fii ci Mauritanie benn tontu la su boobaa ngeen ni ma waaw gis nañu ko mel ni moom su ngeen ma ko waxee man leen da ngeen di kàcc la wax te fan na doo da ngeen di kàcc su ngeen nee ma giiru dund mësunoo gis ku melni cheikh ahmadou bamba su boba fa hawlukum haqqun xàqun seen wax ji deug la wa ila tufannadu ah koku lol la wax jërëjëf serigne touba def kéemaan gu réy ganna mhm. xam nga lan la alquranul karim la sol nit mhm. ci ñetti fan musu mhm. tam gaay jang histoire ngi may deg ci gannar la sole nit ko ñi wax Mouhamadou Fall ak Daymaani ñetti fan la ko Cheikhul Khadim jox alquran. est-ce que. bi mi ñew ñaari mbokam la ànda. bi nu ñewé ñu set ci serigne bi ni su neexee gis ñu xamni ni haajo dina faj su naqari gis ñu xamni ni du faj far nu ñew fekk sëñ Touba ji xayma gi mu génn ñom ñett ñu ñew set ci sëriñ Touba ñaar ñi wax seen aajo ay bor lañu amon soxla ndimbal sëriñ bi jox leen xewal go doy mom sëriñ bi lakku luy sa mu ne ko dama bok ci giir go xamni kep ku ci manul alquran do fa tekki dara duñ la may soxna duñ la tudde dom da ngay melni ni ci seen biir ngir ñaka jang alquran te sama baay ma tooñ jëw ma woon daara lii moo ma metti mbakki nekk sama naqaru xol te mu wóor ma ne yaa doon na bi yow la jox alquran ku la neex nga may ko alquran may ma alquran sëriñ bi ne ko dinaa la ko may waaye da weeru koor dafa nuyoo demal toog ba kori nga ñëw jërëjëf mu dem ci daara ji xaaral ma terminé ko rek mhm. mu dem ci daara ji toog ba kori jàll sëriñ bi génn rek ni ana ki doon ñaan alquran mu ne ko maa ngi sëriñ bi ni ko kaay nu may la alquran mu waaxu fekk sëriñ Touba fi mu taxaw mu jox ko boppam sëriñ bi jël loxoom ba <laughs> teg ko ci ndaalu bopp sëriñ Mouhamadou Fall Mouhamadou Fall waaw <laughs> loxoom ba nga xam ni sëriñ Mbay Jaxate nee na mm-hmm. alhamdulillahi ndegam mm-hmm. man mu bon mii njaxam loxo ba kenn amul njëgam tegoon ak saa loxo bi loxo booba la ni tegg ci loxol sëñ Mouhamadou Fall ni ko yaa Mouhamad Fall iqra'il qur'ana jàngal al qur'an ci ku demul woon daara mu commencé alif lam mim zalikal kitaabu ca baqar li hmm. tari bi alaa yajidu maa yunfiquun ñaar fukki isib sëñ Tuubaa ni ko xif ca taw ba sëñ bi ni ko taxawal mu taxaw mu ne ko ñaar fukki isib a ngoog bu ëllëgee nga dellu hmm. mu dem deuxième jour mu dellu si sëriñ bi dóor ci bopp bi ni ko jàngal alquran yow Muhammad Fall mu commencé innama sabilu di ko tari ba wala yàlla mu maa tas na oon ca an ka bóot sëñ ni ko xif taxawal mu taxaw bu ëllëgee nga dellu si hmm. mu dem troisième jour mu dellu si sëriñ bi dóor bopp bi ni ko Mouhamad Fall jàngal alquran mu commencé wala tujaadilu ahlal kitab ba minal jinnati wan naas yi sëriñ Tuubaa di muñ di ko xool naan ko yaa Mouhamad Fall ataytuka alqurana taaliman wa tahfisan wa tilawatan may naa la alquran ci mokkal ci tari ak ci di ko neexal bu ñetti fan yi jot deel wecc alquranu karim gànnaar la defe lool sarsaara la jotee wirdu yoon wirdu yoonu murit mu ngi ko amee sarsaara sarsaara lañ ko njëkk a wax naa la bi mu ñëwee ba jaar ci dex gi la jaare seex siidee baaba yebal ñaar ñu ko jël mhm. mu ànd ak ñoom ñu indi li koy gëléem kenn ki da koo togg kenn ki yor gëléem jiitu mhm. ñu jaar ci yoonu saara bi ci yoonu désert bi waaye bi ñuy dem ci désert bi fu ñu taxaw sëñ Mouhamed Lamine Diop dagana nee na Serigne Touba day wax fii de neex naa sujjootale yàlla. jërëjëf sa Abdoulaye may leen ko ma wàcc waaw. loolu rek euh, moo ñuy tegtal ci wayi Mouhamed Ibnu Hassan. waaw yi nga doon wax. ala ya ibadallahi qumu li tashadu wala taktumu ma taxlamuuna fa taxtadu sahaltukumu billahi man sara aytumo alal ardi misla sayq yarkahu yasjudu ndax mas ngeen a gis ci kaw suuf ku mel ne sëñ tubaa ci rukkoo ak sujjóot sëñ tubaa lu mu mas a def rek maanaam fu mu jaar rek julli na fa du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba tax mu war fara tey boromam du déggug nodd mbaab kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw ngir boromam du tab ji ba tiim musul di maamoom du gapuru bis du wérul julil boromam du yeexal wenn waxtu te masta fay fat la koy wax raw na montar moy boromam motax tax Cheikh Sidiye di ba yag man ne ahmadu nihmatun awlaha hasihi alqalaahi kullaha mawlaha ibnu muhalla dama la waxul won ci li nga laaj léegi Cheikh sidie mom nga tudd moom waxna seigne toba Cheikh Sidiye dani wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naful wara fi subihi wa cheikh sidi baba miñ ko denkon mo wax ni serigne touba ñaari défaut la xam ci mom ñaari ñaari erreur la xam serigne touba ma koy def li nu won ci waxtu rek mo jeex wa kon baxna nu ngi jéggulu téléspectateur yépp euh, gannar mom serigne bi toj nako gis nga ibnu mualla nena hasal haasal qadimu min al kamal ajaiba wa maqamuhu fihi al huyul taharu nena serigne touba mom manam kenn ko xamne ne masta tegi ku mel ci Cheikh amadou Bamba mm. mastam kon mbok yi Euh, lii moo doon jataay bi damay jox sëñ Boussara Samb mu wax ay kàdduum yu mujj ñu ñëw ci sëñ Gànn mu wax ay kàdduum yu mujj ñu ñëw ci Sarablaye Diop Bichri mu wax ay kàdduum yu mujj lu yëkkati jataay bi ba beneen yoon incha allah sëñ Boussara looy tàggoo. micro micro euh, sant yàlla bu baax sant sëñ Touba bu baax di seereel sama mbégte ak sama cant ko seereel yàlla sama borom ak sëñ Tuubaa la Rasuul amunu jenn tawat amunu benn njàmbat sant yàlla rek lañ def ak xol bu sedd guy ndax euh, man lii may def nii rek laa ci am ñeent fukki at ak di ko def booba yaakaar naa ni ñii ma toogal nii ay xale lañu. Mm-hmm. bu doon làmb tey kon tey jii ca làng ga lay toog waaye liggéeyal yàlla moo amut loolu boo gisee conférence yi guddi yi ma bàyyi ko mooy ñi ma maaseel kenn soloti ci mbubb moom guddi dem ci jàng moom waaye sëñ tubaa itam da dul ñëdd asgor topp nit di ko ñëdd sëñ tubaa du ko def mu koy sant bu baax ci relève bii nga xam ne moom la teg suñ kanam muy xale yii surtout sëñ Gana mi ak sëñ ab Diop Bichri ak ku mel ni sëñ Saliou sàmb ak yeneen i yi sëñ Ibrahima Fall mii yow nee naa la noo bokk bàyyi xam naa sa papa bokk na ci ñi nga xam ne ñoonu sunu mag yi kaw la koy xam nga leen ñuy relève boo xam ni da ngeen noo cautionné ci cofeel gii ngeen wan te nii ngeen mel ci man nii la jàng xale jàngkat yi mel ci man barke Serigne Touba ñoom ñëpp am ci man estime ñoom ñëpp am ci man considération ñoom ñëpp di ma bégee di ma bànneexoo fu ma leen fekk li may am ci yéen ci bànneex sax duma ko am xanaa ci rek ci doom yi ma jur maa ngi ñaan ci barke Serigne Touba Mbacké fu ngeen jëm yàlla na ngeen fa yegg te bu leen pakk fil nii rek la Serigne Touba lii la bëgg nit ku osé te boo bëggee réussir ci yoonu sëñ Tuubaa bi da ngay boole yaari yëf da ngay am da ngay ñime defi te te ba te bañ complexe te bul am complexe gis nga li sëñ Tuubaa wax bi sëñ Gana di nekk diggante sëñ Mor Anta Sali ak sëñ Tuubaa ak mag ñi in kaana aybi suxdun fi xutaamihim fa zaaka aybun nafisun laysa yusidi nee na man ñëpp di war may dox awma ci complexe bu kenn am complexe te nan ñime defi bii nun léegi waxtaane sëñ tubaa yomb na loo ci wax ñu ñu dëggal ko amoon na ay jamono benn organe de presse fi am boo ne sëñ Tuubaa amul morom ñu censuré ko waaye gis nga li sëñ Tuubaa fayee tey jii lu la ne man waxtaan yëpp laa mën a déglu ki ma gën a neex sax mooy kiy wax yu rëy yooyu te kenn du ko dagg kenn du ko censuré dagg censuré? ñi bañ qualité bépp qualité waxtaan yépp am na na ngeen góorgóorlu bu baax ci fii ngeen teg seen tànk noo ngi sant borom kër gi sëñ Abdou Samad ndax nag dafa bëgg yoon wi te gis nga nit nañ sax nit for la waaye ku sa am bëgg na li mu doon bëgg na sëñ Touba bëgg na taalibe yi bëgg na jàngkat yi bëgg waxtaankat yi di leen béggee di leen teral di leen loolu am solo la kon nag yàlla na ko yàlla defal jàmm moo bokkam yépp nag te mbokki sëñ Touba yi njabootu sëñ Touba gii nii ñu la sëñ Mountakha yàlla na leen ko yàlla fay noonu de waa Daaru Minam la nu sëñ Mountakha sama sëriñ waaye xoolal li ko bokkam yi def kenn ku ci nekk yéene ko xilaafatoom gii kenn ku ci nekk dar ko li nga am lépp nga dikk ak moom ci yéene ko ndam bëgg ko ku ko ciy xool ca kaw nga koy xool lu mu leble woon rek yàlla fay na ko ko ci bokkam yi ak ci bàyyi taxam yi ak ci rakkam yi ak ci mur saadixam yi ak seexi sëñ Tuubaa yi. jërëjëf noo ngi ñaan ci ji borom Tuubaa yàlla nañ fi dajawaat na gën a si déwén kon nag joyeux safar yéen ñëpp noo ngi leen ciy ndokkeel bu baax sëñ Gana ah, di la béggee bu baax damaa laa bëgg a décontracté rek yow xam nga yow. Eh, yaakaar naa ñëpp maa la ci gën a xam <laughs> waaye nag lu ma yeesu foofu eh, <laughs> xam nga ni kii moom. ñëpp maa ko ci gën a xam moom <laughs> jërëjëf Serigne ci kàddu yu rafet yooyu. sëñ Gana nag xam ngeen ne moom ak cofeelam ci Serigne Touba doonut rek lu muy wax waaye lu muy dund la ci xolam te man sama rakk la maa ko yar te loolu moom du ko weddi man maa ko yar. xam naa ko bu baax xam naa ne ku bëgg sëñ Touba la. ba muy gone ba nëgë ni foo tuddee sëñ tubaa mu jooy xam naa ne ba muy tuut tànk laa ko xam waaye foo ma sa tuddee sëñ tubaa mu jooy ku nekk xam ne ne émission bii xamutut lu muy wax ndax booba ba nëgë ni bi sëñ Bousra di wax ak moom bi muy wax yëpp xelam dafa dem ci sëñ tubaa ak lam doon daj tuuma yiñ ko tuumaal natt yu metti yi nga xam ne nee na daj na loo xam ne du ko nettali daj na loo xam ne nee na lu ma du nekkali maa laa askuroo abadan te adduban du ma ko nettali mukk ndax lu ñuy suturaal xam nga ne loolu métti na kon sëñ Gana lu ngi lay sant di la gërëm xam nañ ne wax dëgg yàlla génn nga plateau bi ndax sa cofeel ci Serigne Touba waaye rek nga indi sa kàddu yi tàggoo. jërëjëf sant uh, kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo doon waxtaan sëñ Bouchra ak sëñ Abdul Abdoulaye Diop Bichri ak sëñ Ibrahima Fall. yalla nu sëñ bi fay rek te nangu nu lepp yagal fi sëñ Abdou Samad ba yalla fay ko yenem ci jëf jibu bu jëf yàggal fi sëñ Muntaxa defal nu jam assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf garna euh Cheikh Abdoulaye Diop bisri yaangi won garnar waye da nga ma ci may nak benen plateau ci bir magal ci inshallah rabbi maluko dik garnar dig nga duggu fa ba xamne yor der bu ñuul lu waral ñak jitu du waral des ak deg yér yor dér bu ñuul du du du du tee li nit ñi xalaat nga di ko xalaat li nit ñi xam nga di ko xam may yàllay mayetim mu may la ci loolu sëñ Tuubaa ko weddi dugg biir gànnaar dagg buumi jaam yi libéré nit ñi sa kàddu yi mujj sëñ Abdoulaye Diop si xanaa sant bu baax santaat euh, alaaji Bouchra bu baax kàddu yi mu wax dégg nañ ko bu baax kàddu yi soññee la kàddu yu rafet la kàddu yi encouragement la kàddu yi gën ñoo jañ ci ci liggéeyal sëñ Tuubaa euh, te dégg nañ ko baax nañ ko jëfee waaye nu ngi koy ñaanal ci barke Sëñ Tuubaa fanam gudd lool ba guddi gi fanam nekk kéemtaan te sëriñ bi defal ko ngërëm ndax ñun ñëpp loolu la ñuy wut yàlla na ko sëñ bi def ngërë defal ngërëmam biir ak biti nu ngi koy ñaanal bu baax di ko sant ci kàddu yu rafet yi di santaat alaaji Gana Mesere di ko ñaanal bu baax fan wu gudd te wér ndax njàmbaar njàmbaar la ci yoon yi woo xam ne sëñ bi rek lay dund dafa bëgg sëriñ bi xam nga émission boo ko seetloo rek dootoo xam sax looy wax jàll na bu yàgg sëñ Tuubaa moomu nag tuur rongoñ ci moom sëñ Fallou nee na ku ko def def nga farata saf ku dumoo ay li hubbil xadimi fardan arahu kon yàlla na la sëriñ bi fay te gën laa taxaw ñu ngi sant suñu jàmbaar ji nga xam ne suñu sëriñ la suñu soppe la ndax nit bu la jëlee rek yóbbu la baytullaahil xaram wax dëgg yàlla defal na la lépp te sëñ Abdou Samad defal na la loolu fekkoon nañu dem màkk waaye yóbbu nañu màkk te loolu ku la fa yóbbu rek mënatoo koo fay ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ci barke Serigne Chouaib waaw ah, di ko santaat bu baax lii alaaji Busra wax moo ne ci moom yoon wi rek la bëgg yoon wi rek sëñ Touba rek lay dund waaw moom jàpp na ni feeg yorul lu bari sax di tuur nit ñi xéewal du sawar a gisee kenn moom bala moo gën a sawar a gisee nit ñi rek mooy xéewal yi bari muy séddal lépp ngir jëmi sëñ Touba kon yàlla na ko sëriñ bii dollee sàmm te yàggal ko yàggal fi sëñ Muntaxa màggal gi yàlla nañ ci àgg ak jàmm te am ci ndam ak tawféex te gën koo waajal te xam ne amuñu ludul moom amuñu luddul mom ki dox sa digg ak safara li serigne Touba bis bi muni sante leen ma ci yàlla mom rek lañu am kon dañ ko ta sante le ko ci yàlla nak waxna dembu defena ci ben télé neena ñun serigne Touba suñu gëm ko nekkul condition suñu leggeel ko nekkul ci condition dañ ko jox suñu lépp sans condition lu mëna xew baxna na ñu mëna fekk jox nañ ko suñu bop mo nu gënal suñu bop gënal na suñu jëm gënal na suñu ruu gënal lu xalaat xalaat ak calcul lépp lañ jox sëñ Tuuba kon yàlla na ñu sëriñ bi defal tawféex ñu ngi sant mbokk yi doon seetaan yëpp di leen baalu àq di la sant yow bu baax sa taxawaay di la gërëm ku baax nga ku yaatal nga te lii ñuy def dàq ñu la ko yaa ñu ko dàq sax waaye sa mbaax a tax nga ñëw woyof jël ko di ko sédd leen rafet nii waaye li ñuy def lépp yaa ñu ko gën a xam yàlla yàlla sàmm la yow it ñu ngi lay sant bu baax a baax jërëjëf Cheikh Abdoulaye Diop kon mbir maa ngoog yaa bind cey ak la jër cey yaa gën a rëy ña naa cey ñañu naa cey menn mbër nga mu rëy yaa ëmb adduna ji yaa ëmb adduna jee yaa ëmb ñuy ëmb ñépp ak seen i ëmb di wéy yàlla nañ àgg ci bis baak jàmm te yàlla defal jàmm si Abdou samat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki ngi nii bu leen ko kenn nettali lool mooy العارفين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد المدافع عندنا والكل منكم زوخلا ويحاسب ومقالكم حق فإني عبد وخديمها بالله والحامد ومقالكم إني أجاهد صادق بالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم والشفيع الشاهد صلى عليه بآله وصحابه بسلامه إله واحد صلى عليه مسلما وعزني من قبلنا إبليس وهو المارد وأمامني سبحانه بالمصطفى فيما به ذات كل قد تقوا والكل منهم بالتناسل حاسدون شيخ الذي يفريط لا من سلسوا توحيده فهو